ngeen ne yi ne ba jàmbaar ya fa jàmbaar yi ne woon ba léegi ña nga fa fu ndox doon am boo fa demee fekk fay tepp-tepp macha allah tey nag euh, message contentement rek laa ñëwee waxtaan ak yéen ci mbégte nag ci xol bu sedd guy guy guy guy surprise nag bi ngeen ma def ak bu ngeen ma defal bi ngeen defal seen bopp mais bi ngeen ma defal moom mooy taxawaay bi ngeen taxawee tey macha allah macha allah kenn mënu leen fay taxawaay bi ngeen taxawee tey pour wane ni rek bu ñu génnee rek taxaw jëmmal suñu bopp mun nañ libérer suñu bopp macha allah di leen sant nag di leen gërëm di leen won ni te di leen wax ni foo leen dem rek sen abnégation ak sen bëgg-bëgg ak sen fierté bu amone junni sax yu trahir yene gagné parce que yalla nee il est avec les forts il est avec les patients gis nga mbégte bo nekkee ci mbir am ci la am ci fayda dama né amul doomu adama bu la mun a ak li nga amul doomu adama bu la mun détourner, détourné amul doomu adama bo xamni mun na laa bàyyi loolu li nga bëgg def man loolu laa gëm ci doomu aadama te tey wane ngeen ko tolloon nañ foo xam ne ñëpp a jaaxle woon ci sénégalais yi ñëpp a tiitoon ñëpp doon laajte naa ñii mbaa dañ leen mystique ñëpp ngi doon laajte mbaa ñii dañ leen a jënd ñëpp ngi doon laajte mbaa ñii dañoo ragal mbaa doo dañ leen a ger mbaa jom daf jeex mbaa fulla daf fi jeex mbaa fit daf jeex waaye tey wane ngeen ni am sax ñu ko doon jël di ko yóbbu naan guerrier ñii dee nañ ñii dem nañ Nicaragua ñi ngi ci kaso ba maanaam dañuy mel ni ñuy wax ni waa Sénégal ña fa des ñëpp ay góor jigéen lañ góor góoru caapa nag góoru caapa góor yaay may ma may ma ñeex may ma xóoñ waaye tey gars yi wane nañ ni ndekete xaaj xaajaatu jàmbaar yi jóguñu Sénégal maanaam un quart ba rek sax jógewuñ Sénégal loolu lu am solo lu fierté la tey tey rek tey man lii laa gëm tey laa am fierte ci samay samay mbokk Sénégal tey dama kontaan barke alxuraan tey laa sentiraat ne ndekete man dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg am naa mbokki mbaar ndeke man dëgg dëgg dëgg ma bëggal Sénégal am na ñu ko bëggal Sénégal ndeke man fi ma Sénégal toll am na ñu mu raw ñu ko raw ndekete man lu may mën xeex mën xeex yëpp am na ñu ma gën a tàq xeex ndeke man lu may dëggër fit yépp am na ñu ma gën a dëgër fit ñu nekk Sénégal tey laa ko gis ci taxaway bi ngeen taxawé taxaway bi nak lu tax ñu né lu mucc ayib la machallah tay du affaire Sonko li fi amone yépp affaire Sonko la depuis 2021 mille mbirum Sonko tambalé mais Sénégal mo jitu mbirum Sonko Sénégal avant 2021 ay junni junni junni junni xex am nañ fi ay xeex yu tàng jër te du won Sonko kon tay ji xex bi ñu nek ni di def ni du xexu Sonko xexu Sonko jeexna li lii xexu Sénégal la. Sénégal lañu teg puuma Sénégal lañu teg nattu donc tey jii ñëpp sentir nañ ci seen bopp ñëpp yëg nañ ci seen bopp ñëpp jóg nañ ñëpp taxaw nañ ndax nit yi bu ñu leen di waxal mais du pour ñoom du seen intérêt pour ñun ñëpp Sénégal la man gënuma leen nday gënuma leen baay gënuma leen bëgg Sénégal te waruma leen ko gën a bëgg yéen a ma war a gën a bëgg Sénégal ndax yéen a nekk Sénégal di fa dund di fa lekk di fa naan di naan ci ndox mu bon bi di lekk ci ceeb bu lekk bu bon bi di dund ay car rapide njaga njaay di mbëkkante am problème mu cent franc ak deux cent franc amumoo ko. bu ma waree xeex loolu xeex naa ko ba yàlla génn ma foofu tey tey di ma suturaal sagal ma samay morom ñi nekk fii ni man amuñu lu ñu amut amuñu lu ma amut maa gënoon mën a toog fii di sañse di solu di lekk ba suur di naan ba naan leen fo fo. def leen ay taalibe bu ma ñëwee indi sama weccet jox leen ngeen lekk bu ma ñëwee bala ma saraxoo ma may leen fukki dërëm cent franc je l'ai pas fait loolu lépp laa sànni fële ñëw na nañ ànd xeex nañ ànd bokk nekk benn on doit pas se trahir ndax am na ñu taxawoon situation bi ma taxawee woon mais defuñu ma jéemuñu ma def ni ku tekkiwul dara dañoo ànd ak man ci xeex bi donc dañoo war a ànd ci xeex bi xeex ko am ci ndam muy seen ndam di sama ndam du suñu ndam ñun ñëpp. lii nag c'est le Sénégal Sénégal mooy xeex moo tax taxawaay bi ngeen ci taxaw rafet na macha allah rafet na trop kontaan naa ci bég naa ci te Sénégal yëpp kontaan Sénégal tey bu amul bu amul lum leen di fay maanaam mun naa wax ni tey ku ci nekk ay milliards la lay fay ndax taxawaay bi ngeen taxaw donc lii rek day wane ni peuple dafa war a souverain peuple dafa war a gore peuple dafa war a bëgg réewam. peuple dafa avoir a dese ngorom waa peuple dafa war a résistant dafa war a résistant bu peuple jógee kenn attanu ko géej gi baaw naan la bu foqul gaal néew donc c'est un travail na vous avez pu résister vous avez pu résister oui vous avez résisté comme tout le monde comme tous les autres pays du monde qui se sont battus, qui se sont révoltés, qui se sont indignés. Le dinosaure, le tyran, le dictateur. Et ces peuples-là, nous intègres. Nous sommes Donc, fini texte, nous tank fof là. On ne doit pas lâcher. Si nous arrêtons le combat, on s'est sacrifié, mais continuons. Parce que faire bu la waree buggee rey nga jekku ko yaakaar naa ni doo naan ab say médicament lëndi bàyyi noonu boo ko defee day ñëwaat ab feebar la tànk dindiwoo ko ci yow du la bàyyi feebar bi ñun xam nañ ko yàgg nag ñun feebar bi nag tey dominé nañ ko maanaam bu fekkoon feebar bu ñuy la mun nañ ni xeex nañ ko tey ba jóg ci kaw lal bi xeex nañ ko tey ba dem football xeex nañ ko tey ba dox dugg dem lijjën sañ soxla ñëwaat waaye buñ tëddee bàyyi ko noonu suba ginnaaw suba ginnaawaati suba mu taxawaat moo ñu tëralaat ci kaw lal bi kon buñ ko fajul dinañu tëralaat li ñu def tey nag buñ ko doublé doublewaat ko teg ko comme les autres pays qui se sont libérés buñ ko defee dinañ am ndam te loolu mooy dëgg incha allah lii ñu tàmbale suba dañ ko ciy tegaat bu duuti duut faraj la bu Macky sàll dawul duñu daw et les forces de défense et de sécurité peuple bee leen ëpp bu gis nga tay ñu leen sonalé imagine toi suba ñu tagat ko ci ginnaaw suba ñu tagat ko ci lundi do gis ben policier wallaay do gis ben policier parce que dañ naan ñi dañ dof ñi nek ñi ñu ñuy xaaral ci mbéd mi du ñuy nit nu ñuy gën di demee ñuy gëna a bëri nu ñuy gëna démé ñuy gëna a sakkan nu ñuy gëna démé ñuy ëpp ñuy gëna am doolé donc on n'arrête pas la mer avec ses bras waruñu taxaw benn yoon taxaw c'est trahir taxaw c'est trahir parce que l'appétit vient en mangeant bu ñu tàmbalee lii waruñu taxawati non non non non non waruñu taxawati bu ñu taxawee mooy may nañ les forces de défense et de sécurité le temps ñu dugg ci biir kër yi di jël nit yi ça a toujours été notre problème suñu problème ñaar la jóg ak continuer balaa ñoo jóg doomu aadama yi dinañ daj lu ne dinañ dinañ xeex ak ñoom reyanteeg ñoom saaganteeg ñoom ba tàyyi ñu doog a bu ñu xasee ba jóg nag combat bi moom bu ñu jógee moom kenn mënu leen arrêté loolu moom c'est sénégalais sénégalais bu jógee kenn mënu ko arrêté ci kaw suuf lu koy xabtal loo sax danga naan est ay jinne waaye bu toogee tamit nga tiitaat sa adduna nga yàq ne yàq sama àdduna yàqu na parce que pour nga yëkkati waat leen c'est tout un problème ñaari problème yi rek lañu am mooy yëkkati leen te bu ñu toogee pour nga yëkkati leen kon toog bi toog mooy danger toog mooy danger parce que togu sénégalais pour yëkkati ko c'est tout un problème kon jog nañ nak ngir yalla buñu ñu toogaat matul tànka matul buñu ñu liñu jog liñu jóg lan la moy Macky Sall jogé fi may ñu jamm mu jeex mu dem yonam may ñu suñu jamm lillahi wa rasuli donc comme jog nañ nak lolu matagul dé on a gagné la bataille mais pas la guerre donc tant que ñuy wax nonu paregul mooy Macky Sall jóge fi may ñu jàmm ak salaam waruñu taxaw ngir yàlla waruñu taxaw lillahi wa suuli waruñu taxaw taxaw mooy rey nañ combattant yi mooy may nga possibilité noon bi mu dugg ci biir kër yi am temps di visionner ay vidéo ba itam di jëli nit yi quatre-vingt-dix pour cent ci suñu combattant yi nekk ci kaso bi noonu lañ leen jàppee trahison bu jóge ci ñun mooy taxaw bu ñu taxaw ànd ak ñoom xeex taxaw ñu fekk leen ci biir kër yi yanu leen ñoom ñëpp dugal ci kaso yi si suñuy bët ndax ñoo àndoon nag ñoom tàmbale jóg ba ba ñu foog ni dañuy continuer ñu taxaw ñoom ñu dem ci kër yi ñun ñu ñëpp dem ñu fekk ñu foofu yanu yóbbu donc ni ñu ko tàmbalee nañ ko tegale suba waaw wal fajiri suba dañuy continuer combat bi ñoom kon ñun suba nañ continuer combat bi ginnaaw suba waa wal fajiri nee nañ dinañ génn ci mbedd mi ñoom it ginnaawaat suba dinañ su ginnaaw suba ñu génnaat ci mbedd inshallah buñ ko dans une semaine wala moins yalla dinañu parce que combat bi yalla mi ngi ci dinañu dinañ am ndam combat donc on lâche pas les gars on lâche pas l'affaire on lâche pas l'affaire pour donc finir suñu tank là. la buñu vous ben arrière malgré tout stratégie soxlawul nee nañ combat mbedd amul stratégie combat mbedd man ci dëkk yi ma xam yu ma jàng benn stratégie le peuple am muy génn génnandoo en masse loolu kese la keneen ku leen wax leen da leen di nax amut dëkk bu génn en masse capable nañ lépp j'ai jàng jot naa lire jàng naa les révolution orange les révolutions pacifiques, yu am pacifique les révolutions yep mais awma ben bo ay stratégie là ci jang li ma ci jang moy peuple bu dajalo en masse vous Mahatma Gandhi bi non ay boycott la système boycott vous boycotté produits français et cetera etc vous jënd duñ ko vous duñ ko nan vous ñu duggu vous du ñoo xam dañuy wax ci kaw di di mar ci du am na ñoo xam système sabotage la mooy bu ñu génnee dagg câble yi coupé internet bi coupé téléphone yi coupé lii coupé la coupé euh, électricité bi et cetera et cetera mais génn bi moo ci am solo képp ku leen wax ay stratégie da leen di nax France xeexeewuñu stratégie amul kenn ku leen jiite di xeexee stratégie peuple bi mooy dajaloo fees dall ci mbedd yi gilet jaune yi noonu la meloon booy nekk ci banlieue yi noonu la meloon

mbedd bu génnee mat des centaines de milliers lolo amul stratégie ñi ñi ngi toj fi ñi ngi tal fii ñi ngi boyal fii ñi di dóor ay ay ñi di dóor ay cocktail molotov ñi di attaquer ñi di kon mbedd kenn mënu ko té en furie la rue en furie mbedd motax tuba bi né la foule est folle la foule est folle moy mbedd dañ dof ku dof nag lépp ngay yàqte lépp ngay rajaxé lepp ngay boyal lepp ngay tal loolu rek moy stratégie stratégie moy nañuy en masse des centaines de milliers dans les rues kan atuñu lolu kessa la légui nak buñu ñu de dañuy taal ñi di dag ñi di boyal ñi di nangam donc fi ay stratégie amul mbedd amul stratégie mbedd amul nopp mbedd amul nopp du dégg dafa gumba dafa teux dof crazy une une foule di comme cyclone di ravage, di avancer di ravage. comme luma len ñoo tenir discours bi tenir c'est normal on les comprend mais man je ne suis jamais jamais d'accord parce que gisuma ben dëkk bo xamni ci loolu lañ ndam ci ci milieu def ay pacifiquement ñun Macky Sall biñ ko sékkal kenn mënu pacifiquement mais dañ koy pour mëna mais parce que boo nee damay dajaloo euh, euh, euh, telle place pacifiquement moom xam na ni pacifiquement du fa am donc moo tax nga da nga fa ñëw fekk fa ay barrières fekk fa nangam donc soxlawuñu di wax ay tel lieu la ñu war a dajee heures pacifiquement non duñ ko mus a atteindre mais baax na nag baax na ci benn côté xam nga tax mu baax day tax sénégalais yu jóg loolu laa ci jàng man saa su ne ngi la psychologie sénégalaise l'homo sénégalensis li ñu def ak a baax biir si guddi yépp moom laa fanaanoo di xalaat ma ne kon il faut ñuy joxe stra ñuy joxe date di joxe lieu parce que loolu mooy tax gars yépp jóg pour converger bu ñu demee naan dañuy converger police bi day génn dóor lacrymogène affaire ba tasaaroo xeex ba tàmbalee kon loolu élément déclencheur la donc jàng naa ci ndekete date bu ñuy joxe lieu bi ay élément déclencheur la parce que duñu atteindre foofu duñ fa laal

même si nous sax bu fa lacrymogène tak tak bu rek partout mu ay intifada mu ay guérilla urbaine et guérilla urbaine bobu c'est super important mom moy par petit groupe parce que police, policiers, dajalowé ni des centaines de milliers ils nañ l'en diviser l'en tas mais bo len ñi di mat des centaines de milliers de petits groupes ñii di taal géejawaay des centaines de milliers par petit group ñii di taal yëmbal de centaines de milliers par petit groupe ñii di taal Médina des centaines de milliers par petit groupe kan ban policier moo leen mën a ban ban effectif moo leen mën a arrêté ban effectif moo leen mun a arrêté kenn munul arrêté ay petit group petit groupe petit groupe petit groupe noonu la waa France di gagné combat bi nga xam ne guérilla urbaine bi amoon gris ñi sama kanam la ma fekk mooy booy yooyu noonu police ba doon dàqe ñu dugg ci dynamo ba courant bi grillé leen ba ñu jeex tàkk dëkk France yëpp tàkk te loolu gris la amee gris ñi commencé xeex Givizy xeex Saint-Denis xeex Corbeil-Essonnes xeex nga gis dëkk bi France yëpp di boy ba Sarkozy sili bu neen la ñëwé Grigny sili bu neen la ñëwé Grigny sili bu neen guddi la ñëwé Grigny té ñaari boy yo xamné ne ñoo doon jaay pon ñoo nekkoon ci scooter ñu leen di daxé police di leen daxé ñu dugg ci benn dynamo silib la duggee fële ci Grigny mom Sarkozy silib guddi la fa ñëwé guddi boy di taal toute la France di tak toute la France la wax di tak parce que par petit groupe la amul dajalo fenn fépp lañu ñuy taal partout La police mënuñu arrêté gendarmerie arrêté parce que région yëpp di tak quartier yëpp di tak amo ben effectif donc mom lañ def stratégie ñun ñi ngi réussir donc waruñu ko faire. moy joxe date ci ben lieu am ñuy dem ñu mu affaire information bi muy élément déclencheur la région yu quartier yi par petit groupe petit groupe ñuy taal par petit groupe kooku kenn mënuñu arrêté parce que mënuñu fuñ dem taal fa rek fuñ ay boy yu fa dajaloo taal fa fa rek police ñëw fa loolu mënul nekk boobu dañ lay dofloo da ngay daw fii dugg fii daw fee dugg fee donc foofu mooy combat bi on a euh, on a été dans presque beaucoup de combats Corbeil-Essonnes on a on a été là on a vécu là-bas même ci xeex boobu malgré qu'on n'était pas des Français mais ci xeex bi lañ bokk moi en tant que Sénégalais, fallait me faire, mais je les ai soutenus. J'étais dans le combat, j'étais dans les rues, en train de jeter des pierres, de me battre. Parce que le me dégrègue, je Donc, euh, quand tu as mes fibres patriotiques, il faut que Même pour le Japon, fait quoi Japon, de faire ça, ñu gis benn nit bu ñuul ci biir japonais il est venu pour les soutenir le peuple oppressé donc fi ñu taxaw baax na alhamdulilah on remercie le peuple sénégalais mais on lâche pas on lâche pas on lâche pas l'affaire fi ñu ko jàpp foofu la donc ni nga xam ni printemps arabe bi noonu la ñuy xeexee ni nga xam ni étudiants yi noonu la xeexee donc tey won nañ Macky Sall ne bi bu jógee du waa Nicaragua ñooy peuple bi une kese lañ ci lu ndaw lañ ci. du ñu dee ci géej gi une partie lañ ci du ñu nga jàpp ci kaso bi une partie lañ ci rek du université bi nga tëj foog ni boo ko tëjee xeex dootul am tey won nañ ni du ay mystique kon tey le peuple sénégalais a montré que dañoo manqué woon ambition rek bi ambition bi ñëwee tey ñëpp jóg nañ malgré que amul université étudian amuñu fa malgré amul loolu malgré ñii dee nañ malgré que ñi daan nañ ci malgré que ñi tëj nañ ci kasso bi malgré que ñi jaar nañ ci yoonu Nicaragua mais tarawul tay le peuple sénégalais digne et intègre à gagner cette bataille physique technique stratégique gagné nañ ko avec le peu de moyens face à ay forces de désordre yo xamni ni dañoo paniqué wu tiit ba des utiliser armes euh, de tirer à bout portant sur des manifestants avec des balles réelles ba ñu naan sax amna ay nervi mais loolu ñi ngi ci parce que côté nervi yi moom euh, cour pénal international mi ngi fi te côté nervi yi bu ñu fàtte ni nervi mi ngi tàmbalee ci affaire Macky Sall ah, ci Macky Sall ak Ousmane Sonko lii du Macky Sall de du Ousmane Sonko de billahi bu fi nervi duggee gars yi dañ koy rey c'est le peuple ku bëgg a xaru rek ngay nervi ñëwul jamono yi Ousmane Sonko Macky Sall fii nga gis ay Adji Sarr ak ay yooyu nga doon dégg noon loolu c'était ay ay Ousmane Sonko la de ay partisans usman Sonko lañ woon ak ay ay ay lu ay ay euh, sympathisants Ousmane Sonko lii c'est le peuple de lii c'est le peuple moo ëpp doole foofu les partis politiques la ay sympathisants ak ay partisans lii c'est le peuple lii boo leen ci duggee rek day ngeen nervi buñ ci bëgg a ñëwul. ak alal bum la ko jaral parce que da ngay xex ak sa wa koñ di xex ak sa wa dekk dekk la dekk dekk du parti de da ngeen xamni li dekk ngay xexal kon nervi buñ ci bëgg sacrifier génnal parce que ay wa son koy nga do xexal de legi du son koy de peuple ngay xexal dekk dekk la Macky Sall tek tuuma dekk la Macky Sall bu ko togaat ne da fi jité ci ay ray ci ay malversation kon ñu ngi wax bépp nervi nga moytu parce que man duma ma man am na ñoo xam ne xeexu lu Sonko dé dañoo taxaw di xol mais tay ñu ngi ci combat bi dé tay opposition bi yépp ñu ngi ci combat bi amna sax wa Macky Sall yu nekk ci combat bi yu andul ci lu Macky Sall def bëri nañu ko bayyi donc li mom bo leen ci duggee dé parce que li peuple la li du parti politique buy xex mo upp doole fuuf Pastef gis ngeen ñepp nga ci biti te du ñepp ay pastif kon li peuple la du parti politique de ku bëgg a xaru rek ñëwal nerf bi bu bëgg a xaru dé fekk sey kër ñu taal sa bay taal sa yaay taal kër ga ba mu jeex tak dugg sil ku bëgg a xaru bëgg a reylu sa njabot te di nerf bi ñëwal kuñ ci xamé duñ la bay parce que dëkk bee xex dëkk moy xex xam nga ab kër guy xex ci koñ bokku la quartier bi yëpp di xex Ousmane Sonko ab kër la ci koñ bi kër Ousmane Sonko moo doon xeex kër Macky loolu jeex na de léegi quartier bi yëpp ay xeex ak kër Macky Sall Macky Sall këram moo doon song kër Ousmane Sonko mu tàng jër affaire ba jeex na ña nga fële léegi nag koñ bi ñoo jóg lëmb di xeex ak kër Macky kon kooku nag ku ci dugg ku bëgg a dee. na nga jaay naa feqab saytaane bañ jël la nga naan da ngay jéem a atte ka ngay am loo def di nga xam ne peuple bi nga ko sëkkal kon loolu ñu ngi araftu di artu les soi-disant nervis di leen wax ni li ngeen réussir réussiroon ci mbirum Ousmane Sonko di tiir ay nit di daw di rëcc ak numéro 9 ak yooyu dootu amatu fi de na numéro 9 bi génn danañ ko wax ni lii du affaire Sonko lii peuple bi ngay xeexal na numéro 9 bi génn. na numéro 9 bi génn da ngeen am fit ak li ngeen doon def ci Sonko pour yéen mu ngeen ko def fii di ngeen xam ni fii du mbirum parti politique li Macky Sall teg nii tegu ko Sonko peuple bi la ko teg war fee jóge la deux na def fii toogaat loolu peuple bi la ko def donc loolu du mbirum Sonko de balaa ngeen di xam ni lépp dëgg la yéen nervi yi ñëw leen ñëw leen rek ñu won leen lii musu fee am en 2011 9 amul woon 2012 ba 2020 xeex yu fi musa am kenn musi cee de Sonko nervi à 2021 2021 le Sonko commencé ci ngeen commencé indi ay nervi Sonko jeex Pas am tourné nañ ko peuple bi Sonko ba nous waxut lu Sonko waxut parce que Sonko le peuple bi partem la jiite boo seetloo depuis bu Macky Sall defee lii amul kenn ku Sonko yónni ne li la wax parce que xam ni sekkatul ko li du partem peuple bi du partem li peuple le peuple góor jigéen mag ndaw ñëpp ñooy xeex loolu moo tax nii yorul kàddu buy diriger peuple bi parce que diriger wul peuple bi partem lay diriger parti yëpp a ngi ci biir combat peuple bi donc lii xeexu peuple la loolu moo tax yooyu yooyu ci yàbbiwu ci xam na ni peuple bi dinañ ko lijjanti seen bopp ndax mbejum kanam borom mu koy fajal boppam loolu la Sonko xam xam na ni peuple bi ñàkk ñu fulla ñàkk ñu fayda moom luñ koy teg. mën na ko tegoo jaay ko doole dugal ko ci kaso mais lii du moom de Macky Sall bàyyi na Sonko daa songu peuple bi so peuple bi nag mbajum kanam la borom koy fajal boppam du ma diw foo ko déggee fa ngeen jëm sorewul donc duñ fi toog di xaar Macky Sall toog fii ba décembre 2024 mukk allahu akbar kan moo ko kan la sanday liggéeyul nga toog bàyyi fi Macky Sall mu naan da lay avril mu fayee ko ay milliards dugg ci ay avion di naaw mois de mais moom ak dëmmam yi nooxóoram yi di fayee di lekk di naan yor oto di viw viw di la romb weew weew mai juin ñu encaissé ay milliards weew weew romb li di naaw dugg ci ay avion juillet août septembre octobre novembre ba décembre ku sanday liggéeyu rek yaa mun a toog di xaar li mu dugg ci ay avion présidentiel am di naaw di le représenté te war le représenter jéxal na loolu mus kenn musu ko fi am te du mokay am peuple sénégalais bu musu ko may Abdou Diouf musu ko may Senghor musu ko may Abdoulaye Wade du ko may Macky Sall wallahi billahi avril Macky Sall dina fi joggé ci ni mba ci né mois de mai le 2 avril le 5 avril ben képp ku sa ndey do doo Macky Sall tok fi le 5 avril ndax loo mayul kenn doo ko may du le 25 février c'est le 2 avril le 2 avril parce que même élection yi président il est légitime même buñ ko dóoroon ba muy bëgg a dee sax dan loolu continuer bu ko mais daal le 2 ci minuit Macky Sall ku mu jiite sa ndey baaxut ku le toog di la wax naan la defee nii defee nii sa ndey il n'est plus légitime jeexal na même bu ko neexee mu bàyyi mais boobu du fi toog loolu moom na koy leer naññ du fi toog kenn du ko ko nangul du fi toog pare na le 2 avril incha allah kenn du ko nangul du man du yow donc ni ngeen taxawee baax na La diaspora aussi n'a jamais été un reste. Et la diaspora, nous mobilisons de commencer à déclencher les hostilités à partir de demain. Demain, France dinañ jóg demain Canada dinañ jóg demain Belgique dinañ jóg demain Suisse dinañ jóg Allemagne dinañ jóg donc nous, nous, la diaspora à partir de demain nous déclencher les hostilités ils seront tous dans les rues de New York à Montréal, de Montréal au Québec, de Paris à Londres, de Madagascar au Maroc et au Maroc Faut donc la diaspora n'y ngi jóg ñoom mobilisé wu dajaloo ñoom tamit tambour bata. N'y tambour bata Italie partout donc on a commencé te waruñu taxaw tant qu'on obtenir une victoire finale waruñu bàyyi waruñu reculer waruñu arrière waruñu taxaw lillahi wa rasuli di leen ko ñaan comme ñu len ko yag ñaanee bu len taxaw bu len taxaw résister résister rester debout la patrie ou la mort nous vaincrons comme le peuple malien le peuple burkinabé le peuple niger le peuple des hommes intègres, Burkina Faso, ils se sont battus, ils ont résisté. Donc on maintient le combat, on lâche pas li def machallah Yémen, mais bayyi. Irlande du Nord aussi, l'Espagne à partir de demain la diaspora ni dans la danse. Ay jambar te diaspora nag dañ dof de ñoo gën a crazy sax wax ñoo leen gën a crazy de gis ngeen nu ñuy def gis ngeen nu ñu def ambassade yi ak consul yi diaspora bu ñuy wax nii du ñu yembar de ñoo gën a tàng li ñu sañ a def benn sénégalais ñi mewu ko nekk bi biir réew di ko def ci ay ambassade gis ngeen nu ñu def ci ambassade yi ambassade eh, eh, New York dañ ko rajaxee ambassade fii nii euh, euh, euh, tuuti fii ci eh, Canada dañ ko rajaxee ambassade belgique dañ ko rajaxe ambassade suisse dañ ko rajaxe ambassade france dañ ko bombardé donc gis ñu ay jàmbaar fàq teud lañ te fi lañ nek te ay dëkk loi la ay règlement té terewul lepp lañ rajaxe kon ñooñu ragaluñ police ragaluñ gendarmerie ndax fi loi mo fi am te terewul sénégalais dañu fekk lañ ci biir ambassade yi ñuus leen bañuy bëgg dé yak té lepp donc fi diaspora fu ndox don am don tok tak ba légui mi ngi té sétap tap tép dëgg dëgg jàmbaar booy wër jàmbaar dëgg fàq tëdd diaspora la mooy liggéey ñaq yónnee sa réew kër yu bëri bu diaspora teewoon seen loxo ñu torox kër yu bëri Sénégal quatre-vingt pour cent bu ñu lekkee diaspora leen yónnee lu ñu lekk bu ñu fayee courant bu ñu ko fayee diaspora leen ko fayal bu ñu naanee ndox diaspora leen ko may parce que ñoo leen di jox lu ñu fayee seen facture yi mais terewul tooguñu fii di lekki banaana ki lekki pomme saa yu combat jotee ñu génn ci mbedd mi saa yu affrontement jotee ñu dugg ci biir ambassade yi rajaxe ko def ko xalaat doomu taal génn gis ngeen ko États-Unis gis ngeen ko France gis ngeen ko Canada gis ngeen ko feneen ñoo ñu kenn gënu leen nekk jàmbaar kuy wër jàmbaar jàppal waa diaspora donc bu ñu leen gën ci nday bu ñu leen gën ci bàyyi mënuñu nekk fii di leen jox lu ngeen lekk di leen fayal seen courant di leen fayal seen factures yi ndox di leen faj boo leen feebaree di faj seen seen baay yi di faj seen yaay yi di di di leen yóbbu lu nek ñu daj ko ba pare bu len neexoon ñu ne son nañ ba pare di financer xex ba bu cotisation joté lepp lu parti politique am ñu nek ci bitim rew bu dee quatre ay milliards wa bitim rew ko joxé on comprend parce que dara amul Sénégal nit yi liggéeyuñu xëyuñu gontuñu dañuy taaba taaba fukki dërëm ñaar dërëm juroom tek table donc tay ji buñ né 800 millions la sax passé am jàppal ni 500 millions yëpp bitim rew la joxé te seen liggéey la dañ koy ñàkk di leen ko jox te ci ci malgré loolu ñu ngi cotiser ñu ngi ñu ngi cotiser seen kër ñu ngi cotiser seen kër yi di faj seen waa koñ yi di jàppale ñëpp donc ñooñu tey ak li mu mën a métti métti métti ñu ngi nii di génn nekk ci mbedd yi di ko xare di ko jaayante à part de demain ñoom ñëpp danañ génn te benn ambassade doxatul léegi lépp la ñu rajaxe jàmbaar fàq tëdd lañ ñu jara sant lañ ñu jara gërëm lañ komba bii dañ cee liggéey lu mucc ay te bu leen neexoon trahir ba yomboon na ci ñi yor nañ ay këyit ñii ñi ngi dem ak ñëw ñi yor nañ seen xaalis ñii nekk nañ fi ay ponkal bu leen neexoon ne suñu yoon nekku ci mais tey ñi ngi ñaq di di di di def kon nag yéen senegal on ne peut pas être plus royaliste que le roi yéenay sibir yéenay dund lu ñu mun rek mooy ànd ak yéen ci xeex bi ànd ak yéen ci combat bi boo leen xiifee ñu jox leen boo leen maree ñu indi leen ndox boo leen raflee ñu taxaw seen wet du méttee ñu ànd ak yéen waaye ki feebar moo gën a metti ki koy faj ndem ki koy faj lu muy daj yépp ki feebar moo koy gën a sentir lu muy daj même bu ko waxee ki koy faj ak ni ki koy faj mën a nattee métti bi du ko mën a dund donc noonu la mel yéen a feebar ñu leen di faj waa diaspora bi di leen faj mais yéen a feebar yéen guddi gi yéenay onk yéenay yuuxu lu naan kàkk ci yéen lay dal lu naan rukk ci seen ci yéen lay dal mais teewul dawuñu nalawuñu ñu ngi taxaw seen wet boo jox ma ndox ma ñu indil la ndox jox ma banana ba ñu indil la banana demal jëndal ma ordonnance bi ñu daw dem jëndal la ordonnance bi ci seen xaalis xelal ma ma naan paracetamol bi ñu xelal la nga naan paracetamol bi yaakaar naa yow mi feebar ba tëdd bay daj ki nga xam ne boo ko yónnee mu jëndal la ordonnance indil la nga ne ko ubbil ma may ma ndox mu indil la ndox jox ma garab bi mu joxal la garab bi nga saw mu tuuri jël la ko kooku kon kon ku jara sant la kon jërëjëf diaspora bi jaraw lakk diaspora bi seen jaan wàcc na ay jàmbaar fàq tëdd ngeen ku ko yëg ku ko yëgut combat bi diaspora bi ci def lu kémtaane lu dégg dayo ji ci wax ji financer ji joxe seen xaalis di joxe cocktail molotov yi lépp di ci rey seen bopp lu ne ñu ngi koy daj waaye ndimbal na ca fekk loxo borom kon ni ngeen taxawee tey dañ cee kontaan parce que nit ki tamit boo ànd ak nit di ko jàppale kooku wane fulla wane fayda sa xol day sedd moo tax ñun tey ñu xol dafa sedd dañoo xam ni ndaxte li ñuy financé yàqul ndaxte ñii ñuy waxal ñi ngi dégg ndaxte ñii ñu buggoon def ne dañoo dee ñu ñi ngi dund ndaxte ñii ñu bëggoon soppi ay tàppet du ñu tàppet ay géree lañu ndaxte ñii ñu doon wax naan ñu ñàkk fayda lañu am fulla lañ et cetera et cetera loolu wane ngeen ko tey kon peuple bi taxaw fi tey résister jaayante ko depuis ce suba ba léegi tambour battant ñaq jaayante deret bi di toq gars yi di dóor bal yi ñuy résister di accélérer ba tey presque dëkk bi yépp lañ mokkal Sénégal yépp lañ mokkal gàcce ngalaama jërëjëf peuple bi résister yàlla na leen fi yàlla guddal seen fan ña toog seen kër nag yàlla na ñu yàlla waree rey Sénégal yàlla rey ñooñu yàlla na yàlla comme moom chaque chaque jour dina rey na xool ci ñi dul xeex mu rey ci ñooñu vraiment ñooñu bu leen reyee du am benn problème mais yàlla ngir yàlla rek jàppal ñu nga sàmmal ñu combattant yi góor ak jigéen mag ndaw te ñu nekk ca kër ya nga xam ne amuñu benn njëriñ réellement ñooñu comme yow kenn mënu la tere rey chaque jour di nga rey mais xoolal ñu yambar yi rek ak ñu toog ci kër ya dara dalu leen dara jotu leen ñu toog fa rey ci ñooñu ñooñu boo leen rey amul benn problème jàmbaar yi nga sàmm leen yal yàlla sàmm jàmbaar yi yal na yàlla sàmm jàmbaar yi xeex ñi taxaw yu jëmmal seen bopp yu teewal seen askan yal na leen yàlla sàmm ñi toog seen kër yi nag te dara jotu leen ñu toog fa yal na leen yàlla rey yàlla leen yàlla rey balaa ñuy combat bii di ñëwaat yàlla na fekk ñu ci bëri ci ñoom dee feebaruñ dara jot leen laggewuñu toog ca kër ya ñi reyante ñu ñëw fekk leen fa ñooñu toogoon ca kër ya noonu di fa lekk a naan ak a xool ak a yëndoo ko na ci bu yàlla dee rey bu bu dee cinquante lay rey yàlla na rey ci ñooñu cinquante yooyu yàlla leen ci rey voilà combat bii di ñëw ña ca kër yàlla nañu bëri faatu ñu ci bëri yàlla nañ faatu bu dee góor ak jigéen te defuñu dara am doole am kàttan defuñu ko yàlla nañ yàlla nañ faatuwaay ba yàlla na yàlla rey ci beneen balaa moo ñëw waaye di découragé waat yàlla na yàlla rey ci balaa combat bii di ñëw yàlla ci yàlla rey ñu bëri ñu bëri bëri bëri ba seen seen doole amul njariñ seen kattan amul njariñ duñ ko def ngir askan wi jaayante wuñ ngir askan wi duñ cotiser duñ xeex duñ yuuxu duñ xuloo kon bu yàlla ñi war yàlla war a rey yàlla na jël ci ñooñu ñu ci bëri incha allah amin amin donc les gars foofu la on continue ce combat ñu bëri ñu ci ñooñu ay traître lañ kon buñ leen reyee sa baax na ay traître nation bi lañ bu nation soxlaa duñ taxaw bu nation di xeex duñu ñëw donc ñooñu ay traître nation bi lañ bu ñu leen reyee rek traître jeex dañ na ku ku rey ku rey say mbokk say noon jeex donc ñooñu sañu mbokk lañ waaw sañu noon lañ kon <laughs> nañu yàlla yàlla suñu mbokk yooyu rek pour suñu noon yi jeex noonu askan lañ noonu nation lañ ñëpp di xeex ñu toog dara jotu leen xam naa loolu loolu loolu xam naa ci dara amoon na ñu nekkoon sama koñ ponkal yoo xam ne mbëfëre di lekk ba suur day ni innamaa comme ay xaru tàpp dama leen doon romb maa ci gën a tuuti gën a wow maa doon génn di xeex fekk la ñu toog ci bopp koñ ba di naan ataaya bu ma ñëwee waaye booy lan la ñu jox ma ma xe xel ma ma naan fooy foo jëbati nii maa ngi nii damay dem xeexi ñu <laughs> ah yaa xeexi <laughs> yàlla la yàlla rey ña nga ca koñ bi ba léegi teg ataaya di naan rek mel ni ay xaru seen baay yi di leen jox seen kër baay yi la ñuy yeewoo nag ñàkk jom seen kër baay yi la ñuy yeewoo fa seen yaay yi di yeewoo xëy ñu gontuñu toog teg ataaya di xaar grand bu ñëw jox leen deux cent wala trois cent ñu jënd ataaya di naa naka doxata ka day rek lañ fa nekkee lekk seen ceebu bàyyi day duus ba doxot ci ataaya ba xaar ko leen ko may ponkal day nit koo xam ne ku ci nekk nga day ni bàyyam ñooñu yàlla yàlla di rey waay yàlla na yàlla di rey ci ñooñu googu vraiment yàlla na yàlla di rey ci xeet googu yow nga jóg di nation yaa leen gën a tuuti ñu nga ponkal day nit koo xam ne ku ci ne te kenn du ci xeex ñu toog noonu nga dem ñëwaat fekkaat leen fa ñuy ataaya yal na yàlla rey ci xeet goo yal na ci yàlla di wàññi bu baax a baax a baax moo leen gën a xam fuuf parce que moo leen gën a jege buumu xolam moom xam na leen mooy traître yal na leen yàlla di wàññi ci su askan wi te bàyyi fi jàmbaar yi jàmbaar yi yal na leen yàlla sàmm aar leen suturaal leen waaw muccal leen ñi bon ñi nag yàlla jëlee leen fi mooy traître de la nation yi du ñu xuloo duñu xeex te lekkuñu naanu seen kër bàyyi la ñu nekk sous dañuy toog ba am 65 ans nekk sous couvert seen bàyyi di leen jox lañu lekk ak lu ñu naan ñàkk jom kooku moo war a jë njëkk jiitu ci xeex bi. koo xam ne sa kër bàyyi nga yeewoo képp kuy xeex yaa ko war a jiitu képp kuy xeex yaa war a jiitu sa kër bàyyi nga yeewoo sa kër bàyyi na góor bu ne lëng dem yanu ab jabar indi sa bàyyi yoreel la ko fukki dërëm yoroo ko yaa war a njëkk jiitu ci xeex ba yaa war a njëkk libéré wu yow kuy wër jaam yow la yow yaay fere jaam bi sous couvert ngay dundee yow di xaar sa benn grand bu nekk bitim réew bu yónnee saako ceeb nga romb ne li lan la ñu ne grand bee ko yónnee nga ne doo rus nga war a jiitu ci xeex ba toog teg say ataay di xaar ku la may yàlla nga faatu yàlla faatu ci lakkum xorom faatu bu metti waay boo dee ci kaw yàlla na nga dee dee bu metti faatu ci lakkum xorom sax voilà ñu ñu yàlla yàlla sàmmal suñu jàmbaar yi daal yàlla nañu yàlla sàmmal suñu jàmbaar yi gone yi nga xam ne ñoo taxaw jaayante ko

na ko xam amul lay amul waxtaan amul dara lu war a mun a tax ba Macky Sall toogaat fi après le 2 avril lu ñu mayul kenn du moom lañ koy may te wallahi Macky na xam ne après le 2 avril du ñu jiite billahi doo ñu jiite wataalaahi doo ñu jiite après le 2 avril amul doo fi teg loi bu ñu dégg doo fi teg amul conseil des ministres duñ fi nangu ndey sax conseil des ministre sa benn ministre du doon ministre fii après le 2 avril dinañ ko raag nag ba mais fii le 2 avril sa benn ministre dootul ay taxaw après le 2 avril naan ay ministre de la ministre de la nangam ñu saaga sanday laa la wax du ministre. dama ne après le 2 avril ku taxaw naan saaga leen ndaayam du ministre day fen après le taxaw naan mi saaga leen ndaayam du ministre ne agresseur nga bandi nga pusiste nga. doo doo ministre le 2 avril la seen nguur jeex le 2 avril la seen nguur jeex ñu ministre amatuñu kenn président kenn duñu jiite loolu nay leer ku taxaw ci région saaga la ndayam sotti la ndayam day du ministre day juul day fen bandi la du président bandi la le 2 avril la pare on on continue ce combat là on lâche pas on lâche pas Boub Macky Sall bàyyee nag fii ak le 2 avril nak bob mom dafa daw ñun noko ñu mu daw comme nuñ ko yeneen dëkk yi ko defee wa buñ ko raagee rag même le 2 avril mom c'est fini pour lui voilà kenn ñu fi jité mais on continue ce combat là pour la libération du peuple sénégalais on montre devant les les pays intègres et dignes qui se sont libérés que ñun ay fàq de lañ voilà pour mes, pour muy leer. combat bi nag combat peuple la bu leen ko jaawale ak combat parti politique chaque jour moo wax leen ko pour ñenn ñi nga xam ne ñoom euh, dañoo am problème pour yeewu combat bi peuple bi mooy xeex ñëpp ñu contre peuple bi ay ennemi lañ mais ñëpp ñu ñëw ci combat peuple bi soxlawul ñu leen di xalaat fu nekk nii ay du ay guerre interne Qui dafa xuloo won Ousmane Sonko ki nang non non non non loolu affaire Ousmane Sonko la paré ñu paree wat ci parti politique ya ñuy xuloo mais instant yi peuple bi la ñoom ñëpp nga ci biir képp ku ñëw japp ci peuple bi ci peuple bi nga instant yi il faut pas diviser C'est le peuple C'est pas le combat de Ousmane Sonko je le répète haut et fort pas le combat de Pastef ni de Ousmane Sonko C'est le combat du peuple sénégalais sa papa sama papa sa yaay de toutes les couches toutes les couches sociales njaago mbandinke wolof séeréer joolaa pukulóor saraxulle donc lii du ay netto ko bandum du ay Ousmane Sonko contre Macky Sall kii le peuple problème mu politique euh, euh, politique yooyu noonu gars yi am ci seen parti politique yooyu ay problème de kesew kesew ay kii moo xuloo kii kii Bougane a nga jàppante kii non suñu yoon newu ci dama ne le Bougane est dans le peuple Sonko est dans le peuple pur est dans le peuple euh, Basirou Diomaye est dans le peuple ñi prison ils sont dans le avec le peuple sont dans le peuple ñi ils sont dans le peuple dañuy dem dans le peuple donc maman maman c'est pour le peuple Que pour c'est pour le peuple du ay moment parti politique. lol nañ ko tegee nële bay leen jaawale combat yi bay leen jaawale day ak pasti bay leen jaawale individuel ak collectif li combat collectif le c'est le peuple sénégalais qui parle c'est le peuple digne intègre moy jëm libéré wu donc bu leen jaxassé problème interne yi ngeen yor ci parti ngeen denc ko ba ci kanam buñu paré li après ngeen wat ci matike, mo xulo ki ki mo matt ké mo xassiké yoy dinañ ci dem mais fu nek ni lolou dafa jeex L'I c'est le combat de Moussa Diop c'est le combat de Djamai Faye c'est le combat de Sonko c'est le combat de Pur de El de Pur c'est le combat de Mamadou de Pur c'est le combat de Mame c'est le combat de c'est le combat c'est le combat de Anta c'est le combat du peuple sénégalais c'est le combat de Rose c'est le combat du peuple sénégalais contre les ennemis de la république qu'on combat les moo fort. Pour fort passer. Ce n'est pas le combat des Pastef mais c'est le combat du peuple sénégalais c'est le combat de gays, c'est le combat de Khalifa Sall c'est le combat de donc même nous on nañ ko assemblée nationale kon le peuple même les députés ont nañ un exemple bu Bach, nous avons a Battle Diaz était euh, à côté de euh, les députés de Pastif. Nous avons and bolo rey loi bob donc Barthélémy Diaz fait partie du peuple sénégalais c'est pas notre ennemi c'est son combat kenn mënu ko dindi les députés se sont rassemblés Barthélémy Diaz était là-bas na assemblée demoon parce que peuple bi la nekkutul affaire parti politique Il y avait les députés de Pastef ñom ñep ñoo àndoon ak Barthélemy Dias donc ça les forces populaires. la force populaire la képp ku andul ci report bi tu es avec le peuple donc c'est le peuple freedom fighting la libération du peuple sénégalais la libération du peuple sénégalais loolu la kon bu les omelettes et les œufs les omelettes et les œufs combat individuel arrêtez ngeen arrêté pour l'instant je suis Thierno Alassane Sall je suis Barthélémy Diaz je suis Bougane Gueye Dani. je suis Khalifa Sall je suis Ousmane Sonko je suis djomay Faye je suis je suis je suis je suis Ali Sall je suis Arnold Kébé je suis Matim Meng je suis Malik Sarr, etc., etc., etc., etc. Je suis, je suis toi, tu es moi. C'est le peuple sénégalais. Contre ce push, push contre ce, ce, euh, euh, ce, coup d'État. Je suis, je suis, je suis, je suis. Voilà. Donc, voilà faut malgré que l'IEP yëpp lu ko déclenché un Sonko moi, élément déclencheur bi Sonko et Diomaye Faye li ñu dund lepp ci ñom la jaar je suis Cheikh Niass je suis wal ñëpp ay xex jamono ji ñëpp xex xeex xex je suis Maïmouna Bousso je suis je suis je suis je suis donc tous ensemble ma malgré voilà à la fin je suis le Sénégal pour ne pas citer que les uns. Je suis le Sénégal. C'est le Sénégal. Dans son ensemble. Dans sa globalité. Je suis le Sénégal. Je représente le Sénégal. Ce combat, c'est pour le peuple sénégalais. La patrie avant le parti. La patrie avant le parti. Tous pour le peuple. Avec le peuple. voilà malgré que comme nous avons pouvons développé le l'affaire Sonko Diomaye moo basculé ci lii lépp histoire bi yëpp lu ko waral c'est Diomaye lu ko waral c'est Diomaye lu tax mu nekk Diomaye moom laa leen di expliquer Macky tegoon na ay plan am tegoon pexem yëpp foog ni génn na ci foog ni Amadou Ba boobu mun na gañe Jomaay ba ñu teg seen plan yépp la vidéo de Ousmane Sonko moo dëpp lépp lépp lii yëpp la usmaan de Sonko moo ko waral dernière vidéo boobu nga xam ne moom lañ génne ñoom jàpp nañ ni plan yi ñu tegoon doon nañ ci génn jàpp nañ ni ay nitu Sonko dañ nar a diviser wu entre Jomay ak ki nga xamni mom moy Cheikh Tidiane Dieye ak ki nga xamni moy Habib Sy Sonko ñew ci dernier vidéo bobu nonu rassembler toutes ses forces ci ki nga xamni ni Jomay légui ñi yoni ñi nga xamni taxawon nañ ci télé bi né pasteur buñ dajalé sen force ci ben candidat dañuy door premier tour bobu yëpp buñ koy wax xamuñu ne won Sonko pare stratégie yérim sex génn na parce que buñ dajalé sen force autour d'un candidat ils sortiront vainqueurs au premier tour far mu ñew Ousmane Sonko mom dafa melni yalla yàlla leeraloon na ay mbir comme day melni jamono yi Moussa ak Firawna won nako yoon ngay jaaree yow Musa, yaa ngi ni jamarlo jakarlo géej yeb bi yor ya musa mu ko Allah mu ne ko dóor ko ci ci géej mu def lu lu ko yalla sante dor ko ci géej gi géej gi xaar allahu akbar mu musa Moussa jàllal yow say ga musa jall ak ay gam bo firawna ak ay gam mat nañ de sante de milliers ñi ngi len top pourtant buñu ñu ba jéxal yalla mënon na fat Geji, gi ko da ko bàyyi nonu get happens ñi nga xamni mu bàyyi ba nga xamni ñi nga xamni mom moy soldatu muteko, ñom ñepp ñoom dugg ci digg géej mu tëj ko ñom ñepp lam ñom ñepp allahu donc motax mu ne len def len seeni plan bo len paré ma def sama plan nonu la suñu borom subhanahu wa taala defal Sonko parce que ñom buñu waxtane ci conseil constitutionnel dañ ne nañ bàyyi jomaay mu dem Cheikh Tidiane na dem Habib si na dem bu boobaa ñoom ñu xam kan la war a voté léegi seen seen seen seen i doole dañuy diviser te bu ñu diviser seen doole boobu Amadou bu ñëwee rek day xar jàll ñoom loolu lañ calculer woon moo tax ñu bàyyi jomaay fekk yàlla noppi na fekk moom Sonko avant moo dugg kaso dafa mel yàlla xamal na ko ni bu ñu fàttee fii fii ngay jaar vidéo bi bu muy génn moo moo leen tiital loolu moo yàq lépp vidéo boobu bu mu génnee ci lañ commencé di daw ñi naan déedéet lii ci biir lii mënu ko xam lii ci biir kaso bi la ko defee lii euh, intelligence artificielle la lii gars yi ñu ngi comploté lii ci kaso bi la ko defee lii mënul ne lii mënu ko xalaat commencé tiit ñu yónniwaat ñi taxawoon wax ne Ousmane Sonko bu demee bu jëlee benn candidat rek ñëpp autour de ce candidat day day gagné premier tour ñooñu ñu yónniwaat leen ne leen dem leen ngeen wàccu lekkat li ngeen wàccu woon lekkat leen ko dem leen ngeen xam loolu ni même jomaay yëpp buñ dajaloowee mënuñu am 35 pour cent. loolu moo tax ñaw waxoon ni bu ñu dajaloo ñoom ñëpp Ousmane Sonko ak ay bu ñu dajaloo autour de quelqu'un day gagné ñu yónniwaat leen ñu demaat ci kii bi naan mun ñooñu day même bu ñu dajaloo mun ñu gagné trente cinq pour cent donc loolu tiit googu tiitaange googu foofu la commencé. affaire bi yëngu généraux yi ñoo indi lii les généraux de l'armée de source très sûre et claire histoire boobu kenn waxagu ko dinaa leen ko raconter est-ce que tu sais que les généraux. ñoo dem saaga nday Macky Sall xëpp ci kaani na ko da ngay dëpp carte gi kii booy bi mënu fi doon président kii booy bi bu doonee président fii ñun ñëppay dee lu Sonko sax ko gën généraux yi loolu la ñuy wax Macky Sall ne ko sax moo ko gën kii bés booleen ko bàyyee den ñun ñëpp lay rey booy bi boo ko bàyyee ñun ñëpp lay rey généraux yi ñoo ko wax Macky Sall yi ci boppam ñoo ko sant Macky Sall pour mu def lii yàq carte gi rajaxe lépp loolu la Macky Sall def loolu généraux yi de l'armée Moussa Fall généraux euh, ki nga xam ne gendarmerie Moussa Fall ki nga xam ni mooy Cheikh Wade euh, kii euh, dégg maa Cheikh Wade Cheikh Wade jóge na fa ki nga xam ne mooy mbay Cissé ki nga xam ne mooy chef police bi Bokar Yàdd ñii ñoo ko ko wax ne ko kii Sonko ko gën booy bi bu fi toogee ñun ñëppay dee loolu moo tax loolu moo indi lii nii vidéo Ousmane Sonko boobu mu wax ne ñëpp jomaay dëkk bi di riir jomaay jomaay jomaay gars yi ñëw ne ko boo leen demee élection jomaay dina leen dóor bu tëdd seen kaw te kii bu jëlee réew mi ñun ñëpp a yàqu. Bokar yàgg Moussa Fall ki nga mbay Cissé ngeen bi ngeen di fàtte ci seen i ci seen si Mbaye Cissé mooy jiite armée bi ñii ñoo yuuxu Macky Sall saaga ndayam tàngal ba mu tàng Macky Sall dëpp carte parce que ñoom ñëpp xamoon nañu jomaay day gañe ñii ñoo indi lii Moussa Fall moo indi situation bi ñuy dund mbay Cissé moo indi situation bi ñuy dund Bokar moo indi situation bi ñuy dund ñetti ñii ak yeneen généraux yu nekk ci biir euh, palais ba ñoo wax Macky Sall ne ko nekk élection moom bu ñu dem booy bi dëkk jël munu ne mu dëpp karti yi yàq lépp léegi bëgguñu toog xaar ko mu waajal jël temps am wax naa leen ñett a fi am fàttaliku leen ñett boo ma koy wax nag yàgg na ci njëlbéen ba nee naa leen samay wax nag jali muus la wàq gis un ma ne leen xeex leen xeex leen xeex leen xeex day may ndam ku xeex am ndam boo leen xeexee yàlla jàpp ci ñu xeex am ndam xeexu leen ma ne leen ñu dem négocier ji mooy ñaar mooy metti na mais kon bu boobaa dañuy négocier ji ñu ne noo amul négociation kon da ngeen di xeex dañuy dallu ci premier ba wasin mbaa dem tool wasin mbaa tool xeex mbaa dee xeex mbaa waxtaan xeex leen loolu laa njëkk a wax ñett plan laa joxe mbala négocier négocier wu leen ñu fekk ñu ci biir kaso bi rey ñu ñetti yii laa joxe bu leen fàtte de dama ne xeex leen boo leen xeexul trahir la nation ñu dem négocier boo leen négocier wul ñu fekk ñu ci kaso bi rey ñu mooy boobaa boo leen xeexu leen négocier loo leen toog ñu fekk ñu ba ci biir dóor ñu ay condamnation yu tàng jër de dix ans Diomaye ak kii nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko ñett yi laa wax génne guñ ko de donc comme sénégalais yi nee na négocier wuñu nangu kii dem éliminer ñi nekk ci biir kon dañuy xeex moo waral lii kon lii mooy premier mooy mujj xeex ñetti yi laa wax de ñett laa wax de musuma cee jóg xeex libéré wu waxtaan mënoo ko ñu rendi la donc ci looy dellu xeex kon nag gars yi fi ñu nekk foofu la buñ ko bàyyi buñ ko bàyyee négocier mbaa dee xeex négocier mbaa dee ñett yooyu la di da ngay ñëw nit tooñ la da ngay xeex xeexoo nga ne grand baal ma grand dama ma baal grand yaa ngi négocier de xeexoo négocier woo mu rend la ñett yooyu moo am partout dans le monde partout dans le monde xeex ba ñuus ko yàlla ànd ci dama ne xeex ponkal taxuta mën ponkal taxuta mën nu ma yooyee nii nu ma tuutee ñuus naa ay garde sécurité yi tey ni ma yoo xam ni koo ci gis mun na maa lekk man mu ndaw mii ñuus naa leen te du lu may raconté ci mbedd la xeexu mbedd la Ciss ñëpp di fekk rappeur yëpp a nga fa boo ko laajee Gaston mu wax ma ko boo ko laajee rappeur yëpp ñi foofu bu may ñuus ay ponkal yi tey ni innama ñu bind seen yor sor ti seen ñuul ñu bind ci sécurité man kese maa leen ñuus ba néewil bëtu kenn ki dóor ko ku mu sànni portable ba portable am ku ko sàcc ba gendarmerie foire lañ mujj donc da yàlla dafa ma tooñ loolu ma tax yàlla gañeloo ma ndem xeex ba metti na mais maa gañe donc bu ma amoon esprit comme quoi ñoo ma ëpp ñoo ma gën a rëy ñoo ma gën a entraîné ñoo ma mën mais dama mës a gëm ni ñii tant man ñi ngi may tooñ ma nekk ci dëgg dana leen ñuus te maa leen mujjee ñuus maa leen noq ba toog seen kaw ñuus lañ bañ mujj gendarmerie foire ñuus leen ñoom sécurité yooyu entraîné suba ngoon guddeeg bëccëg ma yooyu maa leen ñuus ñu néewil leen noq leen ñu ñu ñu ñu ñu dugg biir prison ba ma ñu ne ma summi sa ceinture ma summi sama ceinture sànni dugg ci biir giri bi ne ko boo ñëwee fi ma ñuus la giri bi moom tey ci guddi gi man a yow fii dañ fi noqante bay bugg a dee mu ne gendarme bi du dindi ceinture bi ñu ne ko génneel mu ne noo du dindi non duma ma dindi seen dir bi du ma ko dindi dafa ma tooñ xool leen nu ma néewilee sama bët bi xool sama portable sax réer na dafa ma dóor ma sànni portable bi dafa nanga gendarme yi mer mais yow kat sobi seen bi oh, oh. sànni ko ci biir giri bi ma boykaay ñibbil ñibbil ne gendarme yi gunge leen ko mu dem jël oh, taxi ñibbi kii dafa reewaay ñoom ñoom lañ ñoom lañ fa mujj a bàyyi lu waral loolu yàlla laa àndaloon ak sama tuutiwaay yàlla laa àndaloon moo tax yàlla defal ma ndam moo mujj ci giri bi man damaa génn ñoom ñoo escorté ba ci génn foire ba ma jël foofu taxi man ak sama gars yi ñu dem seen yoon man kese ak ombrezaan mi ngi fa ku ko laaj mi ngi dund laaj leen ombrezaan xeex boobu maa nga fa woon ma nga fa woon ma nga fa woon laaj leen kilifa xeex boobu ma nga fa woon laaj leen caat xeex boobu ma nga fa woon rappeur di seetaan man ak sama tuutiwaay sama cëkkili ma ñuus ay ponkal yi day nii nama di entraîné suba ngoon bu dégg bëccëg sol ay sécurité mu noq leen parce que yalla la àndaloon donc bu kenn ragal kenn ci tidjayam ak ponklayam tank ya nga dox ci deug di xex sa liberté di xex say droit yalla dina and ak yow bul ragal bul tit bo and ak deug yalla and ak yow te ku and ak yalla ya mun ñep ya mun ñep kon nak on continue ce combat ci deug ci djup faay ko dox ko ci deug manipulation pañ ay fo combat bi am nañ lu bari luñ ci gañe macha allah tey def nañ ay jéego yu doy jéego yu am solo buñ ko bàyyi les gars te ñu bàyyi ay diversion ay Macky Sall daw na euh, Macky Sall dawul bi ngi dakaar ay doomam a ngi Ndakaaru Njaay jal jóob yooyu damaa dem ba sonn ci bëggatuma cee dugg sénégalais nag wóolu nañ ma yaakaar na ma ci ay information yu baax ay ki sosaka di wut lu kii ak loolu amplifier yokku nekkuma ci loolu moo tax ñu sonnal ma ci loolu parce que buñ fuñ jaaxle rek ñëw ci moolaa ne dañuy poser ay question moolaa nangam ak nangam parce que dama leen tàmm jox lu baax tàmm ma leen jox yu bon tàmm ma leen di leen fen tàmm ma leen di wut ay nit tàmm ma yooyu dama ko démystifier wutuma alal wutuma ay vie wutuma dara loolu moo tax bu ñu jaxlee ci dara bu xaw fu ñu koy jëlee ne ay information mais bu ñu jaxlee bu ñu ñëwee man dama leen wax dëgg nekkuma di fenn dama leen xamal dara xeex bi am na solo mais Macky Sall demul Maroc buuse mi ngi Dakar googu ne tekk bu leen nangu ko leen divertir bu dee doomam Amadou Sall mi ngi Dakar bu dee jabaram Marème Faye mi ngi Dakar Dakar googu di leen dégg demuñu fenn.

je suis pas les médias sénégalais loolu moo tax duma xam fu ngeen di jëlee seen fausse information yooyu fu ngeen koy fore mais daal lu ma leen xamal mooy Macky Sall mi ngi ndakaaru Ndiaye Jal Diop tey jii fa la yeewoo demul fenn Marème ngi Dakar di leen dégg ñu ngi leen di dégg Amadou Sall mi ngi ndakaaru nii nii nii nii nii nii nii di leen dégg kenn demu ci Maroc kenn demu ci Maroc ñi ngi dakaar di leen dégg c'est des fausses informations archi faux xaw ma mais nous, suñu on continue ce combat là on continue ce combat on lâche pas on lâche pas Souba, dañ ko ciy un tambour battant les gars Souba, soldat, sangou, sangu julli ou, tagaat ko côté, demain demain combat là pour fàttali ko gars demain y a combat suba combat la suba combat suba combat la ok suba combat la nga yeesaay ñu teg ko ci wal fajir nag mi def combat moom tam ñoom nee nañ suba combat la suba combat la yëpp nee suba combat suba combat la du journée journée na law de journée morte la suba combat suba la weekend bi suba lay neex bu vendredi soir mel nii kon samedi moom day to tey tojo ma dojo tey dañoo lancé alerte Macky rek mais suba la gën a suba lay boy suba la boy boyaan ba suba kenn liggéeyut kenn xëyut kenn gontuut suba la weekend tambour batan na tàng jër tey bu doon lakk nañ quatre vingt suba la ñuy suba suba lañ koy def doom suba la doom dóom dëkk bi suba dóom dëkk bi la dëkk bi lay doom tey safara la suba dóom la suba dañ koy doom suba dañ koy dom ginnaaw suba nak ñu puudar ko Macky Sall du tey tàkk la suba dom ginnaaw suba dimanche ñu puudar ko ko waaw dir dir tambour dir bu tang jër jër jër jër jër vendredi samedi dimanche bu dir dir, jër jër jër jër buy bay buy lak na tak na tak na tak na tak voilà ñom ñu bari ci ñom ay manipulateur la ñu nek ci suñu biir drapeau suisse drapeau Russie soxlawuñ ko ñun on veut être libre autonome jëluñu sañu buumu jaam di ko jox Russie koi yow Russie dañ la gën yéen dem ngeen Russie Russie loo leen foog Russie ah coupe du monde bu France di jël euh, euh, euh, bu France di jël coupe du monde maa ngi woon Russie man Corée du Sud laa jam Russie Sénégal moo a gënal junni Russie Russie daa ma metti tus amu fa ñun suñu fierté lañu wut suñu dignité la wut suñu libération la ñu wut duñu tekki buumu jaam bi ci français yi lonk ko ci Russie pourquoi moytu leen ñu yor drapeau Russie ñooñu soit dañoo xamul dara soit ay infiltré lañu ñun soxlawuñu Russie drapeau sénégalais bi lañuy ñuy yëkkati di combattre avec le drapeau sénégalais di fight du ñu xeex mukk di fa dugal drapeau russe amul lu ñu benn njëriñ c'est le drapeau sénégalais qui flotte boo amul drapeau ngay dem di sagu jëwoo ay drapeau jàmbur russe yi du ñu xeex mukk di yor sa drapeau soit digne et fier de ton drapeau sa flag ci kaw nii yëkkati ko ci kaw di xeex soxlawuñ drapeau russe une benn fierté doon ay on est des sénégalais des combattants dignes du peuple sénégalais Vous bëri ci ñoom ay infiltré tey soloon nañ comme ay pompiers pompier ndeket ay policier lañ muy lu graaw ay symbole de la république du ñuy fooyee tey soloo nañ ñu ngi sol comme ay yére sapeur pompier di jàppaate di civils. sol ay tiset amba maki di jàppaate non à Macky Sall gis naa ko ñu sol ko yu rouge di jàppaate ay t-shirt yu rouge yu def non à Macky Sall baare ko ñoom seen bopp ñuy sol ko di jàppaate donc y' a beaucoup ci ñoom yu ñëw infiltré wu sol sax ay t-shirt non à Macky yu rouge xamante ne yu rouge ñoom te ñoom la yor ay drapeau russe ñoom la ay coy lañ ay dëmm lañ ay lekkatu nit la ñu jaxasoog ñun donc day leer. faites beaucoup attention beaucoup beaucoup attention suñu Russe Russie France même la croix rouge des fois dañ di infiltrer nañ bañ La croix rouge ay jambar lañ man mi buñuy ñu gañ ma ñom ñoma jël yobuma dañ nous hôpital rek ma dem combat principal dem merci à à eux du ma ko mus a fàtte donc croix rouge ay jàmbaar lañ mais bu ñu leen naree infiltrer ñoom nañ yuuxu ne dañ leen infiltrer comme sapeur pompier sapeur pompier yi croix rouge yi góob ni dinañ nangu loolu. croix rouge international la góob ni dinañ nangu loolu sapeur pompier yi parce que Macky Sall moo leen jiite mun naa jël sapeur pompier ñëw mel ni ñuy fajaatee ndekete ay policier lañ jël la largué la police bi fekk ay policier lañ yu yu mbubboo yëre sapeur pompier. wala abiyewu comme des Baye Fall loolu yëpp ñoom la mais góob ni croix rouge moom dinañ na international loolu Macky Sall moomu ko ji Macky Sall jiitewu ko aw góob ni waa croix rouge ñoom ñàkk nañ fayda ba Macky Sall di jël seen yére di ko sol di nekk nekkati policier la non loolu góob ma loolu. mun nga ko def sapeur pompier parce que Macky Sall mooy seen baay mun nga ko def gendarmerie Macky Sall seen baay mun nga ko def police Macky Sall seen baay.

Euh, xanaa doo leen seetaan animaux yi animaux yi doo leen ko seetaan j'aime bien di man di seetaan documentaire animaux mooy gën a jël sama temps j'aime bien ça gis nga un animal comme ay bukki wala gaynde benn troupeau mu ñuy bëri bëri bëri mu ñu xasee ba dàq benn mën nañ romb sax beneen duñu arrière loolu loolu daf ma neex bukki troupeau ñu naaw ci benn benn kese ñoom ñëpp topp benn bi topp topp topp mu tànk ñu ko duñ taxaw kon combat dafay am objectif animaux yi gis nga ñoom seen combat dañu am objectif gaynde bu jógee ni lii lay topp loolu lay topp bu matee dix mille yoonam new ci bii la topp na ko du ko bàyyi du arrière mukk ne am na bu may romb fii déedéet da topp focus ci ñoo xam focus animaux ñoo xam focus Top ko top ko top, muy mu top, ak mom top, top. mu top top cible bi lay ba ko kabaj ñu am fierté xamni top. da ko reub da ko top et pourtant top, top, yu muy romb bu bëggoon lu yomb day taxaw rek mais top, la c'est ça ils attaquent avec synergie avec amour cible focus donc nañu focus top, yi top, top, def

nay leer foofu lañ tollook moom loolu moom mooy objectif bi mooy combat bi peuple sénégalais bi nee na lu ma mayul Senghor mayuma ko Abdou Diouf mayuma ko Abdoulaye Wade du Macky Sall laa koy may ma lànk ma bañ joye sama bakkan tay la sama bakkan moo ma gënal du fi toog Macky Sall di ma jiite te tàmbale nañ combat bi tambour battant tey macha allah vingt sur vingt demain na lépp mokk mokk mokk te suba lay gën a neex parce que suba Canada mi ngi ci mbedd mi tout Canada mi ngi ci mbedd mi la France mi ngi ci mbedd mi euh, euh, Espagne ña ci mbedd mi suba Japon ña nga ci mbedd mi les Sénégalais de la diaspora kon suba la war a gën a neex suba lay boy suba lay tàkk barke Rasulullah suba koo woo foo sànni mu tàkk da ngay nekk Sénégal woo Canada ni ñi ngi mbedd ma nga wo France ni ngi ca mbedd ma nga wo amerique ni ngi ci mbedd ma nga wo Tunisie ni nga ci mbedd ma nga wo Japon ni ngi ci mbedd ma nga wo Corée ni ngi ci ca mbedd ma nga wo Espagne ni nga ci mbedd ma nga wo Suisse ni nga ci mbedd ma nga wo Belgique ni nga ci mbedd ma nga wo Corée ni nga ci mbedd ma foo woote ñi ngi ci mbedd ma donc senegal xana nak ils vont pas rester en reste li waa senegal France di len xexal suba waa senegal Espagne di len xexal suba waa Canada Sénégal Canada di leen xeexal suba waa Sénégal Amérique di la xeexal suba ñoom ñu toog suba donc suba na tàng na boy na lakk suba na tàkk suba ku toog workat nga fépp ay tàkk suba incha allah kon nag deme dañ ko ciy tegaat tambour bata tambour bata demain incha allah cible bi à jekku nañ ko

ay jabaram ak doom la mais Macky lii na la demee yow waxoon nga ne dangay dem généraux yi ñoo indi lii takk leen li ma leen di wax ab téere la de source sûre bu jógee ca palais lii moom palais la jóge pale ñoo xam ne ñi nga fa metti li leen li Macky def nii metti leen trop ñoom ñëpp la Macky Sall waxoon ñu waajal takkoon nañ seen bagage ñoom ñëpp bay waaj dem lii daf leen a bett kenn ci ñoom ne moom moo la ba léegi waxagu leen li loo Macky sàll tey nag laa la koy wax mu ne ma généraux yi ñoo saaga Macky Sall ne ko duñ nangu mukk nga toog fi di seetaan jomaay fay di jël réew bi Sonko saxoo ko gën ak téye jomaay fay bàyyi Sonko saxoo ko gën Sonko gën fuuf jomaay jomaay moom bu fi yegsee dañuy rey ñun ñëpp ñëpp nga arrière mbir yi wala ñun ñu tëbal la jël réew mi loolu la foofu la situation ba tolloon dañ ne ko soit nga abal ñu ñu tëbal la jël réew mi soit nga arrière mbir ya xool nooy lijjantee ba jomaay du bokk loolu moo tax ma Macky Sall arrière mbir ya carrément loolu la ma wax na ma lii moo am ñun ñii ñi ngi fii toogaat te Macky Sall la ñu fi toog toogloo ñun ñëpp parewoon woon nañ bay waaj a dem retournement de situation bi ñëpp la jaaxal ba ci Marème fay sàll nee na sàll Sall looy def nii ba ci Amadou sàll ñëw na ci Macky Sall laaj ko ne ko mais mbir yi nu papa mbir yi nan la demee nii waxoon nga ñu pare nañ lépp lépp jeex na nan lañ def ba affaire bi ñëwaat melaat nii ñëpp a jaaxle loolu nag Macky sàll ak généraux yi la xamoon nañ ñu Jomaay fay mooy gagné donc dañoo décidé woon bu ñu defee élection xamoon nañ ñu Jomaay fay mooy gagné. vidéo Ousmane Sonko bobu yàq na changé na lépp Diomaye fay mo doon gagné généraux yi lank ne duñ ko nangu généraux yi de l'armée de la police de la gendarmerie ña nek feulé ñom Koulibaly ñom ñep ñom ño wax Macky Sall mo tax Macky Sall depp mbiri ni mais mom ci bopam paré won na mom da doon dem donc lolu mom duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk nañ taxaw fu ñu taxaw baax na ci li ñu nekk baax na ñu teg ko ci kenn du nangu ga waaye dafa doy sax mais sa xam ngeen lan mooy douze ans yéen douze ans man neew man nan la nit mais yéen waaye fii kuñ fi doxaanoon douze ans sa waay kuñ fi doxaanoon douze ans waxuma jëkkër de parce que parce que président moom égal far président du jëkkër président far la jëkkër ngay ñaan à vie mais président amul à vie far la far kan tay Macky Sall bu non safar gérer le douze ans di ko nangou yo ban jigéen koy nangou xana da nga bëgg dé di ray waker wa kër di len dagaté disparaître rek sa grand frère ñi waxati mu ne sa grand frère bi dafa yakal jëlaat sa benen grand frère disparaître disparaître rek sa trois grand frères ñi waxati mu ne sa frère yi ñi ngi may sama doxane ray say frère tiire say frère ay ne sa frère bi sa frère yi dañ may yàqal jël leen dugal ci kaso yi douze dem ba ci biir diggante douze ans bi rey na ci sey frère rey ci say sœur tëj ci say frère tëj ci say sœur toroxal leen bañ a toog ne non dama war a mayaat ma dix mois ma continuer doxaan bi kuy loolu mayaat ma dix mois ma continuer doxaan bi kan la ndayam liggéeyul yow ba ngay continuer doxaan bi xaroo ko gën xaroo ko gën c'est fini xaru ko gën ay bandits de grand chemin lañ intérêt jaral na leen lu ne xam ngeen Sidiki Kaba lan la bokk ak Burama Kaba Burama Kaba bu Ousmane Sonko dëkk Parcelles Assainies waa Tamba boobu ñu jàpp dugal ko ci kaso bi est que xam ngeen nu mu bokk ak Sidiki Kaba ñun waa tàmbaa yi xam nañ ko Burama Kaba bi mu dugal ci kaso bii. bokk na ci sénégalais yi njëkk a tedd ca Tamba. Hammer ci moom lañ ko njëkk a gisee Hammer oto Hammer yi Amérique la nekkoon businessman liggéeykat Burama Kaba yor ay millions moo ñu doon tegal ñun jamonoy booy moom moo ñu doon tegal ay pot de lait maa ngi fàttaliku grand boobu. doon jóge Amérique kon ak kon ñuy joué ak pon wala plateau ñuy joué pot de lait duñ ko ñàkk pot duñ ko ñàkk moo ñu ko doon tegal. pour booy xam naa xamuñu luy pot de lait potu meew yooyu ñu doon teg ñuy ñuy ñuy jouer tournoi Burama Kaba bii moo ñu ko doon tegal di yor ay di indi ay hameur nga ndam maami oto Burama Kaba boobu da ñëw investir ay ay hôtel tedd balaa Macky Sall di tedd bu muy tedd sa Macky Sall xamuñu xamul fan ban yoon ban yoon mooy tedd Burama Kaba papa mooy cabinet Kaba buntu këram lañ doon naanee ataaya cabinet Kaba député PS député PS cabinet Kaba yàlla ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana buntu këram lañ doon naanee ataaya bokk na ci premier député Tamba yi Kaba ancien maire député président assemblée euh, euh, chambre de commerce bu tàmba moo jur ki nga xam ne mooy cabinet Kaba ki nga xam ne mooy Burama Kaba laaj leen ma Burama Kaba cabinet Kaba papay Burama Kaba lan la bokk ak Sidiki Kaba benn bàyyi Sidiki Kaba jàpp doomam nokk ko ci kaso bi Sidiki Kaba dëmm bi moo dugal doomam parce que Burama Kaba papam mooy cabinet Kaba Sidiki Kaba ak cabinet Kaba ñoo bokk benn bàyyi benn papa yow ki nga bokkal benn papa mu tëj sa doom billahi wallahi boy bi and ak Ousmane Sonko nek parcel asin mu nan ay da doon financer boy cocktail molotov sidike Kaba moko tecc ci kaso te bayam cabinet Kaba ak sidike Kaba ñoo bok ben bay xol la nii fu dëmm yooyu ndax bañ buñ bañ Sonko forcer boy Burama Kaba pour mu ko grand boobu mu lank nako mukk changement rek mu enal ko ba fenal ko ne dafay mooy financé booy parcelles yi ay cocktail molotov mooy ki takkoon Queen Biz ñu eh, mooy newoon jëkkëru Queen Biz ba foofu la dëkk Parcelles Assainies unité 13 am na fa sax ay hôtel Burama Kaba ñu naan ko ni Kaba ni Kaba lañ koy wooyee ñun Buramani Kaba doomu kabine Kaba di doom ci Sidiki Kaba mu tëj ko ay dëmm lañ ay dëmm nooxoo kooku bu muy tedd Sidiki Kaba tekkul dara jàppalewu ko ci dara mu dem ba doon li mu doon ñëw jàpp foo gisoon Sonko da ngay gis Burama ni Kaba ci ginnaawam foo gisoon Sonko jël alalam jël dooleem di ko ci def Sonko def ko soldat bu mu respecté bëgg ko buggul benn poste jël lu liggéey yëpp Amérique ñëw investir ko pour jàppale parti bi mu fenal ko naan ko doon da doon financé ay cocktail molotov da doon financé jàpp ko dugal ci kaso mi ci kaso bi te Sidiki Kaba ak papam mooy cabinet Kaba moom cabinet Kaba moom papam bu muy doon dara bay nekk député maire boobu xoolal ki nga xam ne moom mooy eh, Sidiki Kaba tekkul dara ñu ay dëmm lañ te mom mom mom mom Sidiki Kaba mom Sidiki Kaba Sidiki Kaba doma Mansour Kaba mo dakka jay passeport diplomatique ci monde bi bepp boy Tamba 80% de boy Tamba yi dem euh, Europe Mansour Kaba mo len jox ay passeport diplomatique mo koy jay passeport diplomatique 4 millions comme comme gerte tiaf Tamba doomu Sidiki Kaba Mansour Kaba Mansour Kaba doomu Sidiki Kaba sirike Kaba jox ko ay tu paquet tu passeport diplomatique dang koy wax dang nga koy jox 4 millions mu dem defaral la passeport woo la nga tek say baram mu defaral la passeport diplomatique. japp doomu freram Buramani Kaba tecc ci kaso bi jël doomu bu mu jur mom Mansour Kaba jox ko ay passeport diplomatique Mansour Kaba di jaay passeport diplomatique yeen foog lol neexna doomu na. bu mu jur ci gañoom Mansour Kaba jaaykatu passeport diplomatique dakar tek ko dar yor auto yu e toy kat di tede keli di fo yor ay million yi e million. Sidiki Kaba jox ko passeport diplomatique Tamba ku bëgg passeport diplomatique boko waxe mu mu wutalu ko mu jaay la du la may dala koy jaay Mansour Kaba ay affaire yu doy war lolou ñun dinañ ko continuer ko dund ñun ñu lan la suñu bàyyi liggéey fi ba Mansour Kaba doomu sidi Kaba di jaay passeport diplomatique ay 4 millions ki 5 millions di ko jaay suñu dom Mansour Kaba amul bac amul dara c'était c'était un grand milliard oto yi gëna a cher ci monde bi lay lay dawal jël Brahmani Kaba bi nga xamne dafa liggéey États-Unis bu dara dul dara mu jël ko dugal ko ci kasso yi nan ko da ngay financé cocktail molotov nga xam ne dafa ñëw financé Sénégal ay hôtel la fa ubbi bu muy indi Ameur Mansour Kaba mi mi mi ngi wër di taxawaalu Tamba ko cogg ko jàgg rey rey sa doomu frère éliminer sa doomu frère dugal ko ci kaso yi jël sa doomu Mansour Kaba jox ay passeport diplomatique muy jaay lii mooy système bi lii mooy système Sénégal lii nag lu ñu war a xeex la jar na dee man bu ma gisee dëkk bi ay ay Pape Malick don doon ministre dama ne dëkk bi moo tax léegi ñëpp yëpp Sénégal Sénégal musul am douze candidats Macky Sall yàq na Sénégal ba Sénégal tekkeetul dara dara bu ñu demee ba Sénégal di am vingt candidats Sénégal di am 200 candidats yu bëgg doon président moy woné ni saway dëkk bi la Macky Sall soppi def ko village Macky Sall da fekk Sénégal mu doon dëkk mu def ko village barke alcorane Sénégal du dëkk Macky Sall yaq nako yaq ba mi ngi melni ab xalé ji benn su koñ bi mu am far bo xamni far bi toroxol ko toroxol ko def ko caga caga caga bu ñuy jangé ci kawam xale bu la gën a tuuti sax ci koñ ba da koy doxaan ñëpp a koy doxaan ku nekk bëgg ko tëddee ku nekk bëgg ko tëddee ab miis la Macky lu fekk toroxal ko toroxal ko ba xam ni ku ko xool rek bëgg ko tëddee ndax ndax nu mu yàqoo yàq wen ya yàq taat ya yàq lépp mu mel ni ku sidaa torox xale yi dafa jàng mu mel ni garab gu daanu xale yi dafa jàngee yéeg bu ñu demee ba Sénégal lu mat ni deux cent cinquante sénégalais ne dañoo bëgg a doon dañ ko bëgg a jiite mooy wane ni sawaay ab kër kër sax sama kër sax moo gën a dëgër parce que man sama kër baay sax xanaa candidat yi kenn amul fit ñëw foofu naan da koy jiite <laughs> ndax baay sama baay liggéey na ko liggéey joo xam ni c'est pas n'importe xool kër googu naan dama koy jiite ku ko sax nga daw ku ñu newoon kaay jiite ko nga ñii nii naan dañoo bëgg a jiite jël ci kenn rek nga ne ko kaay jiite sama kër dañ joxe dépense foofu di joxe affaire yooyu danaa lu mukk kaay jiite sama kër mukk la lew mukk sa kër du ma ko jiite maa maay joxe dépense nga ne ko waaw maay joxe suukar maay joxe ndekki mukk du ma ko jiite ñoom ñëpp bëgg a jiite Sénégal parce que nu ko waajee yi àqee nu ko waaj toroxalee bu ñu demee ba àdduna Senghor sax bu mu fi nekkee amuñu vingt dix personnes yu bëggoon doon candidat kenn amuloon fit boow loolu war nañ xoolaat lu tax de Abdou Diouf ñëw na fi ba jàll musuñu am plus de dix candidats musul am Abdoulaye Wade ñëw fi ba dem musul am dix candidats mais Macky Sall ñëw sa waay bëgg a dem mu am deux cent cinquante yu taxaw ku nekk yor sa fooy ne da ngaa bëgg <laughs> ci laa ne dëkk bi génn ko nag jar na ko dëkk dëkk bi daw ko nag jar jot na nag dëkk bi ñàkk na valeur am lépp ñàkk na ko dëkk bu deux cent cinquante ndoxu ndéem bëgg a jiite non dëkk bi pare na existé tul moo tax foog ñu ñuus leen nag eh gaa yab nañu de ku miin say wax yab la bukki bi yabee gaynde ca doxin bala gaa yi miin nañu de deux cent cinquante ndoxu ndeem yu taxawaalu ba seen tuuni tàng ba seen taat yi tàng ba yoratuñ dara ñëw ne dañ ñuy jiite ñun war nañ fas jom de gaa yi ñeme nañu de affaire bi nag mujj naa mujjee doon nag lu ñàkk fayda ci suñu kanam seen kanam ñoom ku fi bàyyi sa kër toppatoo woo ko ba fay fayda bu ku ko neex ñëw ne day takk sa yow la dama ne ab kër sax bu sa baay génnee àdduna sa yaay nekk fa ndem sa yaay la xanaa doo seetaan doxandeem bu ñëw ne dama koy doxaan dama bëgg a sa jëkkër nga tourné gis deux cent personnes ku nekk a takk sa yaay quoi dama bëgg takk sa yaay dama bëgg ko pour jiite doom yi de dañ ko bëgg a takk pour lekk xaalis ba dañ ko bëgg takk pour noos fanane ko tëdd fa ngapé ko ñu leen di sol ñuy solu ba seen mbaq yi ñu dem seen yoon Sénégal non la mujjé mel baane bu taxawalu rek ñëw na def ñi bëgg jité li kem na lii leçon la wu ñu war a pour mëna défarat suñu taxaway pour mëna défarat suñu taxaway parce que dasna bukki ñu bukki nañ ñu ba ku mu neex dajale sa ñaari feuy duggal ci classeur taxaw buntu euh, daf wala buntu nangam nan dama bëgg jité ñi ñi lan la yabé ban kanam lañ leen won ba ku ñu xool rek yap ñu ne kay leen ma jité leen kon ni peuple bi def amna solo dina tax bala nit di la dina xalaat bala nit nan dina lay dina xalaat fukki wax man salaam jàll sax góoma nii loolu man man dama yaakaar loolu cinéma la man ba léegi góoma bu salaam jàll bi nag bu salaam jàll bi moom góoma ko moom mais nag salaam jàll tam am na bu gisee bu gisee coon ñaa ñëw taxaw gis naa te kenn mun ci dara coon <laughs> ñaa mi ngi nii neen daa bëgg doon daa bëgg daa bëgg doon président mais bu buñ ko dindee ba léegi taxul fenn taxul fenn kenn moo gis coon ñaa ci front bi kenn moo gis coon ñaa ci ñuy bañ kan moo gis coon ñaa ci ñuy xeex kan moo gis naa kon lépp théâtre la lépp théâtre la gis ñu ko ci dara ak ak sama cousin Alpha Thiam sama cousin la sama cousin Alpha Thiam xam ngeen Alpha kan kan mooy Alpha Thiam <laughs> sama sama mbokk la sama cousin la Alpha Thiam mooy doomu Khoureychi Thiam le ministre Khoureychi Thiam bu tàmba kooku mooy moom mooy euh, papay Alpha cham <laughs> mais Alpha cham comme man la rek ha ah, tok na xol gis ni ya si ni ku nek beug jité gaay mu na mën man ma ñew <laughs> Alpha tam il a raison de ton gënu ko ci dara ha ah. Alpha tam da jangi won ha ah, comme ton ñew gi xol moom tam <laughs> affaire lool la rek ha comme gis na ni ton dem na ne day doxani mom tam mu ñew na xaaral ma doxaan ah mi ngi rek affaire bi lool la ha piin bis joge fe mom tamit wax na ci deug de kenn gënu leen ndey de comme affaire bi mujj na doon caapa yaasin na ñëpp ñëw làmbaatu mbir ma mujj na miis ma mujj na doon caapa miis miisu Sénégal bu mujj na doon ab caapa yaasin bu feebar bu sida ñëpp ñëw na dañuy doxaan waaw il a ah, man pour man Alpha Thiam euh, coon gënu ko ci dara ah. gisuleen leen coon ci front gisu ko ci combat musul xeex nii ni dajewul benn dajalewul ay nitam ñëw xeex dara bàyyi na Sénégal fa demaat na amul benn ambition ci Sénégal foofu kaay ko doon def bu ko defee ah. moo tax Alpha Thiam sama cousin bi moo tax bu ma ko waxee nee naa ko Alpha noonu la Alpha na sax de waaw oui man gars yi gën a ëppale wu ma ma ne ko ah si ëppale wuñ la ci de dañ laa gën a dëgër fit rek te yow ko am fit nga demal <laughs> affaire bi affaire bi caapa yaasin la de lamb daj la fu nekk ni moom sincèrement yo mujj na yomb mujj na yomb de lamb daj la fu nekk ku ko ku ko doonul da nga koo bëggul <laughs> ko doon rek da nga koo bëggul ah instant yi moom. raay mbell la ubbi juróom raay fukk la dugal yëngal sang <laughs> senegal senegal léegi caapa yaasin la ubbi juróom raay fukk dugal yëngal sang moo tax ñoom ñëpp ñëw nag taxaw ku nekk taxaw <laughs> quarante cinq al naan xaaram waroof noonu la mujj mel de mujj naa yomb de ubbi juróom raay fukk dugal yëngal sang la gars ñoo ñàqam fayda ñàqal fayda seen bopp ba ñëpp ñi mel ku jóg taxaw ñoo ne dama leen bëgg a jiite voilà ñëpp ñëw mais buñ leen tey buñ taxawaay bi ñu taxawee dootu ñuy ñimeeti nii ñu ko taxawee daal buñ ko bàyyi dootu ñu ñimeeti la Pape Malick nduur waa mba Pape Malick Ndour bu mbaddaxun moom tamit <laughs> non gars yi daal Sénégal man ma xoolee man ne Sénégal defar am lu ma métti nag des fois saaga rek laay bëgg chett Pape na ministre la quoi <laughs> man daal Sénégal Sénégal tekki fi yow mën a daal Malick Ndour mbaddaxun ndeysaan tey Sénégal Sénégal de ku ne woon Pape Malick bu mbaddaxun ku ko ne woon yow mun nga Sénégal mun nga fa doon ministre ba mu nekkee di taxawaalu Kaolack Cas Casaville yooyu sew tuuti mel ni yoo Pape Malick Ndour dem eh, ñu mbaddaxun ñëw Kaolack après dem dem fële eh, Parcelles Assainies di jàng CM LPA xaw ma LPA ba Pape Malick Ndour googu noonu moo tax gëmewu moo tax tey dina rey sénégalais ya céet waa Mbadda Xunde moo mujjee doon ministre fii Sénégal bul wóolu kenn de kii lay romb nii nga koy xem nii dof koñ bi sax mun naa wér léegi dem doon ministre de Sénégal bul saaga kenn dof bu ngay nekk ci koñ ba nga koy sarax sax naan dof la dof la suba mun na ay mbokkam jóg dem wutal ko ay ñaan rek mu gée après doon ministre de dafa yomb foofu nag comme ñi la ñi nekkoon fi doon taxawaale ñoo mujjee doon ba Malick Ndour bu Mbadda ministre le Sénégal ay Moussa Bokar Thiam <laughs> non man dama dama tit ci aduna muy saga ay ay ndongo dara nan ndongo dara buy wal na lan jai ko tu na la wax mom lan la <laughs> tu visa ba <laughs> non pa Malick Ndour of nak la jaar déggal ki ki ki la jaar way fi ngeen di topé waji way waay Mame jaar na fa lek xaliss bu fa nek Pape Malick Ndour kii yu Mame Mbaye ba la njëkk a jaar ñu koy waxee sax euh, fàtte bu bu bu kii bi foofu la njëkk jaar foofu la kii Prodac Prodac la njëkk a jaar gis nga li ngeen toppee <laughs> mais non mais non nga li ngeen toppee Mame Mbaye Niang mii même chose la Pape Malick Ndour am na ku teel. dugal ci poosam 35 milliards na rajax mais mais ma bu Mame Mbaye Niang bi la wax après mom bu mu fa joggé mom lañ ko jox product fofu la njëkk pap malik Ndour commencé détourner ay milliards sàcc fa ay milliards joggé fa ñu jox ministre ministère de la de la jeunesse mu jël caga cagaam boobu nekk Fatma boy nomé ko <laughs> chef de cabinet Fatma Boye bu kaw la ñépp xam nañ ko ab cagaam la Fatma booy ab cagaam la bu nekk kaw la mu nommé ko chef de cabinet jàngul fenn Fatma Boye mënu sax liir turam mu nommé ko chef de cabinet Fatma Boye bu kaw la ñépp xam nañ ko <laughs> laaj leen ko laaj leen ko ana ana ana ana kii programme xëy ndaw yi xëyu ndaw yi quinze milliards quinze milliards programme xëy ndaw yi ban ban xëy kan la fi Pape Malick Ndour jël borom làmmiñ bu rëy bi laaj yi kan la fi Pape Malick jël quinze milliards xëyu ndaw yi mënu ko tëll warax rajax wan na toog jox ci cagaam ji Fatma Boy ngandam maami kër xam dafa rëy làmmiñ ngandam maami kër la tabax padoa derrière centre centre de santé bi Nabil choukair Nabil choukair ngantam keur bo xam d'une valeur de 500 millions 500 ba pare xam na dafa lami ami ko def di wër di wax rek di wër di wax rek ginnaw Nabil choukair hôpital Nabil choukair centre de santé bobu ci ginnaw keur pa Malick Ndour mo ci dakh gën ci rafet plus de 500 millions la ci def 500 millions nee na telem bi ça vaut 17 millions nee na 17 millions la jëndee telem bi télé télé bu nekk écran plat yooyu mel ni cinéma home cinéma yooyu noonu bu mu def nee na 17 millions la ko jëndee <laughs> lay wax gars yi quoi mooy quelques gars yi doon taxawaanu foofu mu for leen leen jëlee leen Kaolack indi leen di leen gëlëmal quoi télé écran yooyu noonu mel ni ñu nekk ci miir yeeg yooyu euh, home cinéma yi ne 17 millions la ko jëndee. kër gi mu tabaxee ko 500 cent millions ginnaaw euh, centre de santé Nabil am benn ciogam mom gindo benn ciogam courtier sexuel am ku gindo contacté rek pour pap Malik Ndour la gindo day yeewu suba bu guddi sol ay dalam grand bu marakisam di wër di wër ciaga pour pap Malik Ndour gindo loolu moy liggéeyam pap Malik Ndour da ko yabal pour mu koy wutal ciaga kese fo gis gindo jigéen lay waxal téléphone ci jigéen la ne du bu duggee oto cagalay wëri bu mu bu mu indil Pape Malick Ndour Guindo c'est son courtier sexuel Guindo Guindo lañ ko xamee Guindo saison son courtier sexuel foo ko gis rek caga kum for jigéen bu mu dem day rëbbi jigéen indi buy ñëw rek moom pour Pape Malick day ñëw rek teg ko sur le plat dem yoonam Pape Malick fanaanee jël ay xëy ndawee jox ko caga jum laal jox leen xaalisu xëy ndaw ya nii lay dundee nii comme Moustapha Diop ñoom ñëpp am ay courtier caga ji nag ci biroom la leen di laalee biroom ministère ministère de la de de la jeunesse bureau ca ka euh, euh, euh, lopito lii lopito lii kii lii yooyu nga xam ni fauteuil lii fauteuil nga xam ni guddi gi da nga koy xëcc nii boo xëccee ci suuf lii lan la lay jox fa la leen di fanaanee ñi moo ko yóbbu këram de jabaram a nga fa toog kër gu mu tabax cinq cent millions ca Padoa des Nabil Choucair hmm? sàcc ay milliards yónni courtier soc selam bi ki nga xam ne mooy gindoo mu dem indil ko cakaja mu yóbbu ko biroom tëddee leen lundi ba dimanche nag lundi ba dimanche même samedi di dafay dem dimanche dafay fay dem bu demee biroom gindo indil ko caga mu fanaanee leen foofu ci bureau ay paquet liaas jox leen ñu dem xëy ndaw yépp mu ngi ci loxo caga yi xëy ndaw yi moom caga ji la def moom la ñoom lay wutal xëy joomam boobu caga ja xëy ndaw ya mu jox ci caga ja ñu yóbbu kenn liggéeyu ci kenn loolu mooy xëy ndaw yi barke alxuraan en 2016 il était locataire à la cité Mourtada ñun war nañ góor góorgóorlu ñun si ñun war nañ góor góorgóorlu billahi suñu nday son nañ ci ñun ak suñu bayyi barke alquran ñi ni ñuy tekkee ci suñu loxo metti na ma ñi ni ñuy tekkee ci suñu loxo metti na ma ba ci kanamu yalla la ilaha illallah 2016 locataire à la cité Murtada Macky Sall jël jox ko Prodac mu sacc fay milliard comme Mambay Niang ñu jox ko ministre de la jeunesse muy sacc ak tax Ah, son père était le masseur de Baye Niass non li yàlla na jeex waaye li yàlla na jeex yàlla na jeex ah. c'est un poulain de de de Amadou Ba c'est son poulain Amadou Ba si boppam moo ko def ministre Mame Mbaye Niang Amadou Ba Amadou Billo Ba Amadou Billo Pitto Pitta Amadou Billo Pitta Ba moom moo ko def ministre moom Amadou Billo Pitaba moo def Pape Malick Ndour moo Amadou Billo Pitaba moo ko def ministre ministre de la jeunesse lii dafa war a jeex gars yi lii de lii dafa war a jeex lii dafa war a dakk ñun bu ñu jekkoo kenn du wax bu ñu jekkoo ñëpp bugg a taxaw moo tax léegi gëmatuñ kenn à part église bi kenn du wax lu ñu dégg église bi de suba bu ñëwoon nañu may leen sax ñu may leen jërëjëf église bi merci yo église bi yàlla na yàlla sàmm yàlla na yàlla suturaal jërëjëf bi vraiment kontaan nañ ci yéen bu mu mettee taxaw ngeen bu mu mettee déterminé wu ngeen bu ngeen bu mu mettee yéen taxaw ngeen wax devant tout le monde jërëjëf église bi jërëjëf église bi jërëjëf vraiment li yàlla wax ne xam ngeen ko def ngeen ko yàlla nee na bu ñu jàppee ab peuple oppressé leen di leen rey di leen tiire di leen gaañ di leen tëj di teg ci ñoom injustice taxaw leen wax yéen day do leen màtt ci kaw di ëf ci suuf wax ngeen ko ci kaw ñu dégg alléluia jërëjëf église bi jésus Christa respect big up big up to the maximum ñu mbokk chrétien yi we love ya masha allah yéen ñi leen jiite ay jàmbaar lañ ñi leen jiite ñu jar ay njiit dëgg lañ même fële ca Rome bu ñu waxee ne dañuy daganal góor jigéen église Sénégal bi dañ ne ñoom duñ ko daga daganal ñoom dañoo lànk ñoom duñu ñoo xam ne dañuy topp ci mbir yi di daw rek de déedéet ay jàmbaar fàq tëdd lañ église Sénégal monseigneur Benjamin respect chapeau bas jërëjëf bu leen Rome bëggee imposer mariage yu góor jigéen góor ak góor jigéen ak jigéen da ngeen lànk alléluia alléluia maximum de respect gàcce ngalaama yéen église bi yéenay jàmbaar yeneen gor yéenay garmi bu mettee doo leen naan ci potit kenn musu leen xam corruption jërëjëf suñu mbokk chrétien yi seen taxawaay rafet na ku ñu mën a def ana ñeneen ña ku ñu mën a def ku ñu mën a def ku ñu mën a def mbir maa ngi noon de jàkka jaa ngi noonu ku mun noddul ku mun rek noddul mi ngi noonu jàkka jaa ngi noonu ku mun noddul jërëjëf suñu mbokk chrétiens yi jërëjëf église bi yal na yàlla guddal seen fan dafa leen ndam lu rëy macha allah voilà ñu ngi kontaan ci suñu mbokk ibaadu yi tamit taxaw taxaw taxawaay bu rafet def nañ ko fi voilà suñ mbokk ibaadu yi macha allah jërëjëf kontaan nañ ku def lu rafet rek ñu wax ko jërëjëf suñu mbokku chrétiens yi ngeen dem mën ngeen sikki foo leen dem <laughs> yéen ñi leen jiite dañoo dañoo dañoo dañ ko ñime taxaw nañ ànd ak peuple bi jërëjëf église bi yéen day jàpp leen ci seen njiit yi de jàpp leen ci seen njiit yi de ay njiitu jàmbaar ngeen yor église Sénégal bi église sénégalaise bi ay exemple de société lañ billaahi bu leen leen bàyyi de bu leen leen bàyyi de du bàyyiwuñ leen musul metti ñu daw leen musul metti ñu trahir leen musuñu jaay seen diine gi musuñu jaay diine gi nag ndax alalu àdduna waaw musuñu jaay diine gi ndax alalu àdduna seen église bi respect respect maximum maximum maximum de love and respect mu bëgg ci yéen yéen église bi billaay wallaay bu mettee ñi nga ak yéen bu naqaree ñi nga ak bu neexee ñi nga ak yéen musuñu leen daw musuñu jaay seen diine musuñu tayle seen ngëm-ngëm musuñu ko def nag ndax alal àdduna mukk église bi musu ko def jërëjëf église bi man maa kontaan ci yéen maa bëgg ci yéen ay exemple ngeen ay exemple la ngeen yéen waa lew na ñaseen big up chapeau bas jërëjëf waa lew na ñaseen jërëjëf yéen taxaw ngeen bu mu mettee wax rafle di jooy naan lan moo tax waxuñu ma ngeen taxaw yéen ci suñu diine islaam taxaw taxawal askan wi ne Macky Sall jeexax nga jóge fi na merci jërëjëf na Niassène chapeau bas big up Sénégal gis nañ seen taxawaay yàlla yàlla guddal seen fan yàlla leen yàlla aar Léona Niassène yal na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla suturaal seen taxawaay rafet na seen taxawaay ci askan wi gis nañ ko jërëjëf amuñu seen fay Khalifa ñas ci yéen la bokk bu leen neexoon ngeen xool ci bëgg-bëggam defu leen ko da ngeen taxaw war a wax ngir askan wi ngeen wax ngir askan wi te pourtant Khalifa ñas mii gis ngeen nu mu taxawee bu leen neexoon ngeen ne sañuy doomu baay lañ wala say nang may xool leen ci loolu da ngeen xool dëgg xaq bil xaq li yàlla santaane li yàlla bëgg askan gu ñuy di la noor ngeen taxaw ànd ak ñoom ànd ak oppressé yi ànd ak opprimé yi ànd ak ñi ñuy toroxal ñi ñuy rey ñi ñuy jaay doole ngeen taxaw yéen waa Léona Niassène jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf kontaan nañ de barke alxuraan gis nañ lépp seen taxawaay rafet na seen taxawaay rafet na macha allah sénégalais nag ñi ngi déglu ñu waxagul ñu ñoom lañuy xaar ak lu leen teree wax waaw ak lu leen teree wax ñi ngi leen di xaar mi ngi noonu imam Dramé jërëjëf kooku jàmbaar la kooku combattant la imam Ndiaye jërëjëf kooku jàmbaar la kooku combattant la am na jàmbaar de Sénégal am na jàmbaar fàq tëdd billaay imam Dramé kooku jàmbaar la waaw mu wute naag imam Dramé laa wax nag wute naag Moustapha Xaj Dramé Moustapha Xaj Dramé kooku bokk imam Dramé bokkul ak Moustapha xat Dramé koo xam ni Moustapha Dramé loola sa baay tuddee nga ne yokkal leen mu ci xaj moo tax depuis boobu ñu naan Moustapha xaj Dramé imam Dramé bokkul dara ak Moustapha xaj Dramé kee xaj la kii nit la bañkat la imam Dramé nit la bañkat la jàmbaar fàq tudd wute nag koo xam ni moom dangaa dem ba jóge ci nit léegi xaj laa ñu tuddee la xaj Dramé Moustapha xaj Dramé kooku boo amee ay ñamu mbam mi ngeen ko wara jox ngeen jox ko ko Moustapha khadra mi ngi fay dimbo ak gaming gu ñuul ak ak ak ak ak lek katu bu Moustapha khadra mi mom waxu ñoko Imam Dramé jambar fàq tëdd Oustaz Assane sek sen TV ok o oh, ma ko mais jàmbaar la kon jambar bo la ko waxe rek jambar la Imam Mbay Mor Mbay Mor Mbay Touba macha allah. gars yi leen di bigga fii voilà Ahmed Khalifa xaj ñas kooku xaj la bokkul ak waa Léona Niassène ñooñu ñëpp ñoom nee nañ positionné wu nañ du côté du peuple sénégalais Léona Niassène sauf Ahmed Khalifa xaj ñas kooku bokk ci voilà Macky Sall est responsable de tous les morts ñi ñu ray tirer leen étudiant bi dee lépp ñi ki Saint-Louis lepp Macky Sall est criminel Macky Sall est un criminel C'est un criminel mooy ray nit yi mais on n'arrête pas la mer avec ses bras on n'arrête pas ñi ñu ray ñep di justice sera faite justice sera faite inshallah. ne vous inquiétez pas ñi mu ray ñi mu reyoon ñi mu rey bi paase ak bi ni ñu mu ray tay étudiant bi mu ray ak kii mu rey Saint-Louis ñëpp justice sera faite incha allah ne vous inquiétez pas ñi leen rey ki leen reylu ñëpp nañ leen jàpp nañ leen traqué te dinañ fay incha allah donc ñi ngi woon ci imaam yi imaam Rafaahi Mbàkke sant nañ église bi gërëm leen teg ci imaam ñoom Rafaahi Mbàkke imaam Dramé ah imaam Ndiaye macha allah taxaw nañ ne nañ peuple bi lañ àndal ne nañ na Macky Sall bàyyi réew mi na Macky Sall teg élection yi la vingt cinq février ou bien qu'il dégage ñoom njool faatu njool faatu njool fuuta njool fuuta ñu ne jàmbaar la Sénégal yëpp nee nañ jërëjëf jàmbaar fàq tëdd nga gis nañ sa taxawaay ci sénégalais yi jërëjëf wute ngaak corrompu yi làqatu ñi mawuñoo wax waaw yow de yuux nga ko ca kaw wax nga ñëpp dégg la sénégalais ngi lay sant di la gërëm imam Adi Niass gaa Sénégal a ngi lay sant di la gërëm voilà ñu ngi leen di sant Fansou Bodian à Bignona ñu ngi lay sant di la gërëm maximum de respect jërëjëf peuple bi gis nañ seen taxawaay waaw imam Ndaw jàmm ñeneen jàmbaar oustaz tey soos ñëpp na leen jàmbaar nga gis nañ sa taxawaay sëriñ Habib si da baax ñëpp na leen jàmbaar fàq nga gis nañ sa taxawaay sëñ Rafaay Mbàkke ñëpp gis nañ sa taxawaay Ababacar Mbuub jërëjëf maximum de love and respect gis nañ sa taxawaay peuple lii rek la soxla bu jàqee rek nga taxawu ko kontaan nañ seen xol sedd nañ Oustaz Omar Sall jërëjëf Tayib Socé jërëjëf albarka jaaraama kontaan nañ ku lim juum ñii ay jàmbaar lañ ñu taxawu askan ñu dawul ñu jaayul seen ngor ñu alalu àdduna taxaw taxawu leen di jaay seen ngor wala di jaay askan ñi ngi laaj ñu toog lu tax ñu toog ñu noppi boobu ba léegi waxuñu lu tax ñu noppi am na ñu leen di jiiñ sax naan ay Macky Sall bu mu defee lii tàggu na leen avant mu koo def ah waaye yow jiiñ yooyu dafa ñaaw dafa bon du lu rafet ah nañ ko teggi ay tuumala ba léegi teggiwuñ ko nag am na ñu génn fii ne li Macky Sall def nii am na ay kër diine yu mu waxtaanal ba pare ba ñu d'accord ci taxaw ci télé di ko wax taxaw ci média di ko wax loolu nag mu yéem ñëpp ñëpp a jaaxle ba léegi teggiguñ tuuma seen représentant yi nañ génn seen représentant yi nañ génn teggi tuuma ga doy na waar de lañ leen teg ñaaw na de daray àdduna jaru li lii ñuy def li ñuy Macky Sall teg nii am ñu génn wax devant ne waxtaan na ci ay kilifa diine ana seen porte parole yi nañ génn wax tuuma gi doy na waar de tuuma gi jaxase na réew mi tuuma gi metti na ñi jokku ci ñoom torop sax ku ci mel ni man mi metti na ma lool lool lool ba ci kanamu yàlla ba léegi mënuma gëm ni no dem nañ wax ak ba sëñ bi nangul leen lànk naa bañ naa loolu donc ñi ngi leen di wax seen ñi leen représenté yor seen kàddu nañ génn waay taalibe yi sonn nañ de tuuma guñ leen teg metti nañu trop trop trop trop trop trop loolu moom boo ñu ko mën a teggi laal ngeen teggil ñu ko ñi feneen lañ leen de nee lii Macky Sall teg askan wi waxtaan na ceeg yéen loolu nag rafetut te man gëwuma loolu ba léegi ba léegi mënuma ko gëm maa ngi xaar nag seen communicateurs yeeg seen représentants yi génn teggi tuuma bi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm sama gars yi le combat continue incha allah la patrie ou la mort nous vaincrons de toute façon on lâche pas on lâche pas ñun ñi ngi ci xaaruñu kenn ci lenn ku ñëw rek ànd ak ñun yàlla baax na allah kulli al ndam dinañ ko am incha allah Donc on continue le combat. Demain, Sénégal et toute la diaspora au combat, au front. Détermination, abnégation, vérité et Inch'Allah, liberté. On love, peace and amour. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di ziare suma mbokk sénégalais yi fépp fu ñu nekk ci réew mi fii ak ci diaspora bi ci bitim réew maa ngi leen di ziare ci àdduma bi